salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ñaan yàlla ku dugg rek mu partagé ko ñu yaatal ko incha allah ñu yaatal ko jaa leen jëf jaa leen jëf si Akhenaton Euh, oui allo oui allo excusez-moi donc euh, daañu ñëw léegi def benn waxtaan ci xew-xewu xew-xewu réew mi xaw ma ndax xaw ma ndax yéen a ngi yéen a ngi may dégg wala déet est-ce que le son bi baax na. est-ce que son bi baax su son bi baaxee ngeen wax ma c'est bon ok d'accord voilà kon ko dugg rek su mané partager mu partager ko rapidement alors euh, ñu def ay waxtaan le son est bon ok c'est parfait di leen nuyuwaat yéen ñëpp rek di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar euh, fas yéene ñëw def ak yéen euh, waxtaan. ci actualité bi nga xam ne moo xew ci réew mi ah, li ci gën a fës di ay révélation yu explosive yoo xam ne kii di liveur di artiste activiste Mollah Morgun def na ko ci weekend bi muy ñaari sortie yu mu def yu amaam solo ci li nga xam ne mooy xew-xew bi Eh, lamboo le scandale wala le complot Adji Sarr eh, nga xam ne mi ngi am na at léegi am na at ak lu topp eh, ñu dégg ci lu ne gis ci lu ne xeex ci taxaw ci ba ay bakkan faatu ci lu mat fukki ndaw ak ñeent dee nañ ci buñ ci boolee doomu nday xadi njaay benn ci ñaari doomam yi mu ëmboon te jotuñoo juddu kenn ki faatu ci ci posen buñu ko posene woon waxoon naa leen ko ci live ñi nga xam ne dañu may suivre ñu bari am na ci loo xam ne euh, Molla Morgan daf ko indi confirmer li ma doon wax ci lu baree bari euh, loolu duma ci dikkaat ndax waxoon naa ko ba pare Euh, mu nekk loo xam ne li ngeen dégg ci li Mollah Morgun indi li des moo ëpp am na lu ngeen war a dégg lu gën a garaaw loo xam ne ñëwagul lépp lu ma ci wax Mollah Morgun wax ko ci Ousmane Sonko wax ko ci keneen a keneen wax ko ci am na lu gën a loolu fuuf lu war a ñëw loo xam ne ñëwagul il faut ngeen xam ko complot bi des na de mhm. daf si nag loo xam ne lii man mayees na koo wax ci ëtt bi ñëpp dégg ko ci public bi am loo xam ne kenn mënu ko wax dañ koy junj rek dañuy insinuer duñ ko junj duñu ko leeral lu tax parce que dañu nekk ci enquête seexu kook ay wuyu ak ay gangster ay bandi yu nekk ci bopp état bi yor yu état bi matériellement financièrement les forces de défense et de sécurité lépp nekk ci seen loxo ba noppi ñu nekk ay wëyu ay bandi ndax nekk ay wëyu ay bandi mooy nga nekk ministre de l'intérieur sa jabar di la diriger Dior Diagne nga xam ne amul benn ndomba tànk ci état bi di manipuler Macky Sall di manipuler Mariam Faye Sall di manipuler Antoine Diom, di manipuler Moussa Fall di nga xamne moy le haut commandant de la gendarmerie di manipuler le procureur de la république mom Dior Diagne benn jigen Adji sar mo tas senegal te benen jigen mo nek ci ginaaw muy Dior Diagne bo xamne dafa am agenda bopam yag na leen tudal Dior Diagne suma ay live mais comme lima leen di wax sumay wax fajar lay wax fek yéen ngi yut seen lex di nelaw waaye suma la mo gën yeewoo ñew fek leen ngeen bu bëccëg dara kam mu di leen expliquer di ngeen comprendre parce que ma laa bu bëccëg lay wax ak yéen mais man guddi lay wax ak yéen. voilà léegi j'espère que vous avez compris beaucoup de choses bi ngeen gisee may tudd ay Dior Diagne tudd Antoine Diome suma ay live su ngeen demee ba ci kanam yéen ñëpp di ngeen comprendre ndax man duma fi nekk di détailler dama leen ni je communique man informé wu damay communiquer il faut que mu leer wax naa ko bind ko

ñoom ñoo tax ma ubbi page yu Facebook mais du yéen ñi nga xam ne maa ngi yéen ñëpp bokk xeex je ne m'adresse pas à vous je m'adresse à mes ennemis les voyous yi nekk ci biir république bi ay Dior Diagne ay général Moussa Fall de la gendarmerie ay Macky Sall Marième fay Sall ay Mahmoud Saleh directeur de cabinet de Macky Sall ay ñoom Mamour Diallo ñoom Amadou Ba ñoom ñooñu ñëpp am na yeneen tur yi war a génn yu génnul am na ñu des de Mollah Morgun waxu leen lépp am na lu mu bàyyi. dinañ ñëw nag ci laay fam bi du ci ëpp ànd nañ ceeg moom mais am na ki loo xam ne dafa am ay erreur moom Mollah Morgun laay fam bi dafa am critique buñ ci indi du critique pour dara mais critique bu objectif la te dañ koy féliciter d'abord man Mollah dama koy féliciter d'abord parce que li mu doon def lu jafe la wax na ko dañ ko jox enquête jox ko ay information mu génne ko loolu c'est pas évident c'est pas évident ñu jox la ay éléments te yow toppoo dossier bi tur sax dégg nga ko jaawale léeg-léeg mu ne Ndeye Khady Gueye léeg-léeg mu ne Moussa Ndiaye ngay xam ne kon moom dañ ko jox ay information mu koy génne mais moom dossier bi topp ko de bout en bout comme niñ ko toppee ñun ba xam tur yi ñun duñ jaawale kenn ñëpp lañu xam dañu xam puzzle bi ni mu tëddee donc je tiens à féliciter Mola Morgun pour effort yi mu def courage bi mu am ak dëggu bi mu dëggu toog di décortiquer comme complot bi ni ñu ko nasee ak ñi ko nas donte indiwul ñëpp am na ñuy dute ñu bari naan woy Mollah Morgun li mu wax dëgg la du dëgg yaa bokk ku nekk yàlla ngi ci wax ñu bari dañ ma interpellé ñu bari parce que bari lu Mollah Morgun wax loo xam ne man wax naa ko lu jiitu loolu lu jiitu sax Ousmane Sonko di ko wax turu Moussa Fall avant Ousmane Sonko di ko wax man tudd naa ko lu bari wax naa ko avant Sonko di ko wax waxumtu wala ak Mollah Morgun tey di ko wax seulement mu laa dafa dem ci ay détails yo xam ne man déwuma ci détails effectivement te c'est important motax mané il faut le féliciter il faut l'encourager son courage sa détermination sa sincérité ak dëggoom ak effort yi mu def parce que c'est pas évident ñu jox la ay information te xamoo nu mu au début à la fin nga war ko génne ci génnin boo xam ne nit ñi dinañ ko mën a comprendre te doo ci juum c'est pas facile moo tax am na ay erreurs yoo xam ne il faut le lui reconnaître am mu wax ne c'est des erreurs voilà mais est-ce que c'est pas un piège li mu wax parce que parce que parce que parce que am na ñuy wax nag moo da ngay wax ba am ki sa am ne dañ ciy am sikki am loo xam dañ koy dàq loolu moom amul ku parce wax te say wax nañu dañ koy jël à amul man ci kon il faut que aussi ñu am ben esprit critique mo xam man la mo xam Sonko la mo xam Macky Sall la mo xam Mola mo xam ku ci doon su wax amé kenn ku ci nekk indi wax ci limu xam limu ànd ak Mola ci wax ji mu ne lii ànd naa ci parce que amna ay éléments yu ko mëna permettre li nga xam ne xamu ko dara mu ne lii ma wax kat xawmako ci Mola la ko xamé leneen li nga xam ne jàpp na ne de nga maam erreur la ci wax ji parce que xam na ne Mola dafa juum mu jubandi fi Mola dafa juum fi parce que nit la man na juum comme man comme ñëpp dañu juum kon li mo laa di def li may def Ousmane Sonko di ko def yéen ñi di ko def ñun ñëpp ñoo bokk benn xeex xeexu ñu ngir Ousmane Sonko xeexuñu contre Macky Sall xeexuñu ko dañuy xeex pour dëgg dëgg lañu bëgg moom la ñuy xeex ñun ñëpp ñoo bokk combat boobu dëgg mooy réew mi di dox ci justice. attekaay yi mucc ayib ñu nekk ci bopp réew mi nekk nit ñu jub nekk ci askan wi loolu la ñuy xeex xeexuñu leneen motax suñuy wax dañ ci xol suñu teray bammel xol suñu aqulahi taala xol ki li nga xamne aussi moy ñeñu Sénégal waxuñu man waxuma luma neex bëgguma ku ma xam utuma buzz ça ne m'intéresse pas suma utone utoon buzz su ma ut buzz xamna ni may def mais ça ne m'intéresse pas nek réseau yi du buzz damay communiquer informé wu ma li Mollah Morgun doon def démb c'est de l'information dañ ko jox ay information mu leen koy jox di leen informer pour ngeen xam man informé wu ma man damay communiquer waxuma ak yéen ñi may déglu waa palais bi laay waxal ak Macky Sall man ñoon ñooy sama cible mais c'est pas ñi yéen ñi nga xam ne yéen vous êtes déjà convaincu de la vérité yéen xam ngeen dëgg-dëgg ngeen di xeex donc yéen du ngeen sama cible sama cible mooy fenkat yi nekk ci palais bi comploteurs yi man ñooñu laay waxal ñooñu laay communiquer foog mu leer may wax ku dugg na mën a partager mu yaatu parce que dañuy ñëw pour compléter li mo Mollah Morgun wax jàppale Mollah Morgun ci li doon wax compléter ci indi ci ay yeneen éléments ak it fi nga xam ne dafa def ay erreur te c'est normal nit la ñu jox ko dossier bu toll ni mu di ci wax am na yoo xam ne daf ci daan te comme dossier bi dafa nekk ci enquête dafa nekk ci justice dafay baax erreur yi ma laa Morgan indi ci waxam ñu mën ko jubbanti parce que loolu nit ñi mën nañ ko téye te dañu nekk ci àtte te noonu yi ñuy xeexal ñoom mën nañ jël erreur yooyu ñoom exploité ko après contre ñun ñuy xeex dëgg loolu moo tax ñu bari ñi nga xam ne xam nañu man xam na ñu ñaan ma ne ma il faut ko nga ñëw ci yenn point yi nga xam ne moo laa def ci def erreur xëy na tayu ko xëy na moo ko tey parce que nit ñi xamuñu ma laa man dama jàpp ne dafi def erreur de bonne foi man pour man dafi def erreur parce que dossier bi dafa compliqué te moom topp ko acteurs yi sax xamuleen bu ko bu koy wax da ngay da ngay gis ne le général Moussa Fall c'est le haut commandant de la gendarmerie c'est le directeur de la justice militaire loolu ma laa du a jaaree noonu Mahmoud Saleh c'est le directeur de cabinet de Macky est un est avocat privé bu mu amul benn procès boo xam ne moom Dior Diagne dafa yor société yoo xam ne papa moo ko fi bàyyi woon mu fokkati ko ak kër yaag yëpp kidnappé Antoine Diome ak Macky Sall ak Marième Faye Sall yor réew mi di ko doxal moom Dior Diagne loolu balaa dafa war a xam xam kuy Dior Diagne ak lan mooy histoire du Dior Diagne baayam bi ko jur di Ousmane Diagne représenté woon xaadar yi lan la seqoon ak Senghor société yooyu mu fi bàyyi sara yooyu ak kër gi joojaan kidnappé ci ay frère loolu yooyu détails yooyu ma laa amu ko moo tax ma laa suivre film bi dès le départ xam na ne coow am na affaire Adji Sarr mais acteurs yi nekk ci biir dil bi il faut que moo laa xam leen ba buy wax du ci juum kon on tire un chapeau à Mola Morgun ci exposé bi mu def ci information yi ñu ko jox mu génne ko nga xam ne amul luñ ciy tegg li dul quelques erreurs yoo xam ne dinañ ci dikk ci kanam ci bi ci jiitu mooy bi mu nee Macky Sall jour bi mu nee jour boobu la Macky Sall yëg complot bi foofu moo dafa juum Macky Sall yëg na complot bi lu jiitu jour boobu Macky le 21 janvier la Macky Sall yëg d'ailleurs le ministre de la justice on publiquement fait ne Macky Sall ministre de la justice moo ko yëgal Macky Sall au conseil des ministres date bi j'ai joxe ci conseil des ministres beaucoup ak date bi moo tout le toujours le la ko Macky Sall Macky Sall yëg na complot bi lu jiitu date bi ko ma Donc wax kooku dañ corriger c'est le 21 janvier la Macky Sall yëg complot bi déposer déposé plainte bindaguñu plainte booba ñi ngi togg complot bi dañuy ñuy complot bi la ko Macky Sall yëg kooku moo laa vérifié waatal ay fiche le 21 janvier 2021 le Macky Sall yëg complot bi le 21 janvier boobu ci la Adji Sarr waroon a dem gis ak Macky Sall wax lu leer de la 21 janvier Bob aji sar Macky Sall ak ñi ko waroon a ñu dem ci gis Macky Sall jour boobu la Macky Sall jour premier élément deuxième élément bi mu ne Macky Sall daw na dugg Radisson jour boobu ba lañ ko a tout ça. Euh, foofu tamit dama yaakaar ne erreur ci Mollah Morgun parce que Macky Sall bi ñu ko acculé ba mu tiit ba nar daw di woote Touba pour ñu jàppale ko booba jamono Macky sàll mi ngi manœuvrer manœuvre yu metti pour waa Touba jóg jamono bi nga xamee na réew mi tàng na ba Macky Sall jaaxle Macky dafa génn palais bi dem Popenguine pole bi nekk Popenguine foofu la Macky Sall tëju woon di woote di jokkoo ak waa Touba notamment Serigne Moussa Nawel Mbacke dégg ngeen Mollah Morgun di ko tudd moom moo dox lépp moo doon wax ak Macky Sall moom ak Macky Sall li yëkkati Serigne Mountakha Mbacke Serigne Moussa Nawel ci la Macky Sall jaar fofu la jaar ba sëñ Muntaxa dugal ci loxom ñi isoler legi sëñ Moussa Nawel wala boog mu isoler ba fam delu ginaaw mom pour que ñu dem jëli sëriñ Bass khan legi mu dox délégation bi dem ci Ousmane Sonko pour wax ak mom dama bëgg mu leer Moussa mu Morgan gis nga bi muy tudd serigne Moussa Nawel xamul sax turam da ne Nawel amna un certain Nawel mom Morgan xamul sax acteur yi man nag dama leen a xam ñoom ñëpp benn par benn ku ki nekk mën naa jaar ci sa tur sëriñ Moussa Nawel Mbacke moom la Macky Sall kaabale depuis palais bi nekk Popenguine jaaxle na boobu bato baa ngi taxaw pour que mu génn réew mi sëriñ Moussa naawel moo teg pression sëriñ Mountakha Mbacke ba sëriñ Mountakha Mbacke nangoo wàcc nangu ci dugal loxoom ba ñu lépp sottee ba sëriñ Mountakha Mbacke nangu ci intervenir nag ci la sëriñ Moussa Nawel nag moom dem làqatu ji isolé wu bëggatu cee feeñ. ñu dem jëli sëriñ Bass bu Poroxaan yónni ko léegi nag ñoom ñoo teg pression Ousmane Sonko parce que pour Ousmane Sonko wàcce ndaw ñi def déclaration ci saasi ak condition yee ca am jox leen ñu suñu ay doléance bu ngeen ko defee ñu def lii ñu def lee yàgg na leen a décrire les relations entre les politiques et les religieux yàgg naa ko décrire ci réew mi taxe ngeen ma lu ne mais saa suñu xeexee ba nar a am ndam rek politique bi nar a daanu religieux bi la ñuy yëkkati mooy ñëw jàppale politique bi pour mu toogaat su toogaatee nag politique yi def ak religieux yi àndaat nekk ci seen i mbir askan wi dee sama wax du fanaan àll lu ma leen wax dafa am fu mu tegu ku dugg na partage mu yaatu ñëpp jot ci Sëriñ Moussa Nawel Mbacke boobu nga xam ne moo dox lépp ak Macky Sall ba Sëriñ Mountakha Mbacke dugal ci loxoom ba yónni bas Bass Porokhane ba Ousmane Sonko def déclaration ba ndaw ñu dellu seen kër ba Macky Sall mëna a amaat jàmm ba ñëwaat tey jii di puus muy dox dàq le général Tine jël général Fall dugal ko ci biir complot bi parce que Macky Sall yëg na complot bi depuis le 21 janvier 2021 c'était un dimanche vérifiez bien la date kon mus kon euh, mo la jàmbaar la mais am na ci fay côté yoo xam ne daf ci daf ci juum ñu ñëw di compléter li mu def li mu wax lu ci ëpp lu bépp presque dëgg la daf ci am ay quelques erreurs rek yoo xam ne dañuy ñëw apporter ko ci pour corriger ko parce que ñun ak moom ak ñun ñuy déglu ñoo bokk xeex bi ñoo bokk fiñ jëm dëgg rek moo ñu ñor tagguma ko tagguma tagguñu kenn dëggam lay wax ma am ci loo xam ne am naa ci dëgg am ci loo xam ne jàpp naa def ci juum ma ñëw di ko ko dollee pour ñun ñëpp ñu mën a am les bons éléments kon te Serigne Moussa naawel boobee jamono yii may wax ak nii nii nii nii nii nii doomi Moustapha Cissé Lo yi dañ woon def conférence de presse tey pour dëggal Mollah Morgun li Mollah Morgun wax doomi Moustapha Cissé Lo yi dañu waroon def conférence de presse tey léegi jamono bi may wax ak yéen ni décidé woon nañ ko ma jox leen information palais bi bim ko yëgee palais bi dañu woowaat Serigne Moussa Nawel Mbacké li nga xam ne mooy seen Serigne ñu jox ko instriction ne ko ne intervenir ci doomu Moustapha Cissé Lo yi pour ñu bañ a génn confirmer Mollah Morgun li Mollah Morgun wax ci do ci Moustapha Cissé Lo doomi Moustapha Cissé Lo yi pare woon nañ tey pour dajeeg presse pour wax ci ko pale bi yëgee dañu woo Moussa Nawel Mbacké Serigne Moussa Nawel Mbacké la ñu woo comme mooy seen allié Serigne Moussa Nawel léegi moom mooy allié Macky Sall numéro un ce n'est pas Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké sëñ Bass Abdou Khadim Mbacké dafa am contentieux ak Macky Sall jamono bi may wax ak yéen sëriñ Moussa Nawel Mbacké mooy ki Macky Sall di câble pour mu dem ci sëriñ Mountakha parce que sëriñ Mountakha mën na am yenn yi du ko xam yenn yi du ko yëg mais du comme léeg-léeg Macky du jàll ci moom directement Macky day xool entourage su sëriñ Mountakha Mbacké ku mel ne sëriñ Moussa Nawel nga xam na am na influence ci sëriñ Mountakha Mbacké foofu la Macky Sall di jaar kon buntu Macky Sall ci Serigne Mountakha Mbacké Serigne Moussa Nawel Mbacké la ngeen jàpp ko bu baax a baax ba ci rapprochement wu sa sekk ak Macky Sall moom Serigne Mountakha Serigne Moussa Nawel Mbacké moo ko dox c'est un élément boo xam ne ngeen bàyyi ci xel Serigne Moussa Nawel Mbacké moom mooy ki nga xam ne mooy doxal bëgg-bëgg Macky Sall yépp ci Touba ak ci communauté mouride bi ci jëmale ko ci Serigne Mountakha xaw ma ndax Serigne Mountakha yëg na u yëgul mais pion Macky Sall ci biir communauté bi Serigne Moussa Nawel Mbacké la ngeen mu leer jamono yi may wax ak yéen yi live bi nii doomi Moustapha Cissé Lo yi waroon nañ génn pour dëggal Mollah Morgun ci waxam ji mu wax na dañ ko posene bi ko pale di yëgee Moussa Nawel Mbacke la ñu woo mu woo waa kër Moustapha Cissé Lo yi ne leen bu leen ko def ndax mooy seen sëriñ ñoom itam comme ay taalibe lañ ay làppato lañ ñu nangu ne toog jàpp seen njàmm te nañ lépp am nañ dëgg am nañ éléments dañoo naroon a génn wax Moussa Nawel Mbacke leen bu ñu toog jàpp seen njàmm pale dee ko commandé yag na leen wax la mafia politico maraboutique ngeen may saga man je suis avec Dieu man yalla la andal su ngeen ma saga tank jant bi waccul dina yek ci sen kaw ak sama deug parce que limay wax dama ko xam deug rek lay wax koy wax nak fajar yéen ngi nelaw xëy na di yut sen i mais bu ngeen yewé ba sëlmu bala ngeen ndekki di ngeen xam na wax ci fajar bepp deug la la mafia politico maraboutique moo tax duñ jóg ci ndóol moo tax ñuy sàcc suñu alal moo tax ñu rey nit ñi leen possédé moo tax ñu jël alal réew mi toog ci ñoom ñu nekk ca kaw toog muy dox Macky Sall ki yenn sëriñ si waxuma ñëpp am na ci ay sëriñ si jub ñu dëggu ñu gëm yàlla ñu baax dañ leen di saasu saa ne waaye am na ci seen biir ñenn ñoo xam ne mafia ñu ku dugg na partagé mu yàlla kon Macky Sall yëg complot bi lu plainte comme nous ko euh, le 21 janvier le Macky Sall plainte le complot bi ba parce que plainte bi ñu le premier lañ ko déposé le 2 à la section de recherche le 2 février le 1er février lañ déposé le 2 février section de recherche le jiitu loolu Macky Sall yëg presque un mois avant wala donc une semaine ou deux semaines avant parce que le 21 janvier ak le 1er février au moins def dix jours comme avant plainte bi di dugg section de recherche Macky Sall yëgoon na complot parce que entre le 21 janvier ak le 2 février bi nga xam ne la plainte bi ak section de recherche booy xool def 11 jours comme Macky Sall avant plainte bi di dugg Macky Sall yëg na dossier bi yëg complot bi moom moo ci ànd ak ñoom moom ci biir complot bi Macky Sall man Sonko du ndax bañ ñooy bëreet mu ne Macky Sall la juumul de xam na bu baax li muy wax il parce que on a des patriotes l'intérieur wax naa leen ko Mollah Morgun kan informé patriote la jamono bi may wax ak yéen ñi palais ngay toj jamono bi may wax ak yéen di live nii palais baa ngi yëngu eau de javel yi lacrymogène yëpp ña ngay raxas kan mooy informé ñi Macky Sall nee na palais bi nañ ko nañ ne carton javel ña raxas fi mu toll nii bopp yi kenn ku ne yaa tam sa borom dëmm palais ngay riir fi mu

ñi nekk ci état bi ñëpp bon ñu am na ay ñoo xam ne ay patriote lañ te dañu am chaîne ci biir chaîne de responsabilité bi dañu am loo xam ne ñoom ñoo ko mën def bi ñu def enquête bi Moussa Fall nangu ko dugal ko biir section de recherche kan moo leen xamal kan bu ñu est ce que ñoom xalaatoon nañ ne enquête bi ci loxo capitaine Touré lay tegu dañu koy jox commandant Mbeng commandant Mbeng di ko jox capitaine Touré ndax wóolu ak jub gu xam ci moom ak professionnalisme kan moo leen newoon na capitaine mbeng ci biir enquête bi dina dem ba xam ne lii complot la mu taxaw dressé wu contre ñoom ba ñu dàq ko loolu mooy état état dafa yaatu am na ay traître ay lâche mais am na ay patriote loolu moo tax seen complot bi du sotti faut pas insulter hein. ku fi insulter rek ma bloqué la soxlawuma ku fi ñëw di roube di insulter di wax non ça sama sama mur la le ku Comment te nga dem tu es libre je veux pas d'histoire je veux pas de polémique je veux pas de hors sujet déglu wala nga contribuer ci le mets, wax tu ci d'accord nga ne d'accord mais ça, ak roube je te bloque définitivement D'autres fi ñëwati tu daay man ma leer ma jot j'ai pas de temps man tollu maay polémique li may def lu sérieux là. je suis en train de traiter des sujets éminemment important ay sujets yo xamna c'est des sujets vitaux pour l'intérêt du Sénégal je suis dans l'intérêt général l'intérêt supérieur du Sénégal boo ma jot détail Facebook c'est libre bon taalee ñëpp ñëw mais liberté bi nga am ba ñëw dugg bu tax nga nek ci sama mur fii sama kër la nga fi ñëw di ruube di wax j'aime pas ça j'ai pas temps, là déjà j'ai perdu temps j'aime pas ça formulaire mu leer parce que ay lapote ngeen fu nit wote ngeen ko écoutez participez même si vous n'êtes pas d'accord dites-le ça me dérange pas ngeen d'accord mais initier ay arguments mais disada di da ngay que non non non ça passe pas ici soit dit en passant donc on continue may wax ne Moussa euh, euh, Mollah Morgun nee na complot bi ay xale yu doon folo yu xaalis dajeeg ay politiciens yu bëgg ay poste bëgg a gën a am ndomba tànk dugg ca poom xale ya bëggoon xaalis yëkkati ko yóbbu ko ci ku jiite réew mi ku jaaxle ko bëgg a faagaagal ab opposant politique moom it mu tàbbi ci ñetti nit ñoo xam ne bokkuñu ay intérêt ñoo daje ci complot bi aji saare ki Sidi Ahmed Mbaye ki ñoom ñooñee nga xam ne ñoom xaalis moo leen ci jóg ak fo ay ndaw yu tàbbi ci loxo Mamour Diallo Macaama ki dégg nga maama euh, nga xam ne mooy mooy mooy mooy ñi ca ñoom dégg nga ko mën a Jibril Waar mais Mbéri Sylla ci la bokk tur boobu ñëwul Mbéri la bokk Maodo Malick Mbaye Mollah tudd ko fenn te Maodo Malick Mbaye mi ngi ci biir complot bi mais Mollah indiwu ko Mollah Djibril War la indi bi yoon comme ku bees donc Djibril waar gars yi indiwuñu ko woon avant parce que Djibril War bu leen fàtte coow la amoon ca assemblée ba ba ñuy jéem a tëkku Ousmane Sonko di ko dóor moom ak Mbéri Sylla la taxoon ñu def ko mooy ñoom dañoo nekk ci complot bi xam li nekk ci biir parce que Djibril waar xam na salon Sweet Beauté Mbéri la xam na salon Sweet Beauté Mamour Diallo xam na salon Sweet Beauté Mathiam Thiam xam na salon Sweet Beauté Dior Diagne xam salon suite Beauté diw diw diw diw xamna salon suite Beauté señ bi sant Mbàkke xamna salon suite Beauté señ bi sant si xamna salon suite Beauté diw diw diw mi may xam nga salon suite Beauté ainsi de suite ainsi de suite jamono bu ne ñuy lâché ay tour génné voilà légui nag complot bi dañ ko bëggoon def te duñu ko jaarale ci les structures normales de l'État xam nga booy complot état te yow xam nga ne complot bi amoo fi droit ndax Macky Sall mënta yor réew mi yor moyen état ba noppi di complot contre un opposant bu mel ne Ousmane Sonko nga bëgg ko def ci turu état dafa scandale parce que état dafay bàyyi ay trace lépp dañ koy bind lépp day am trace loolu moo tax bi ñu tegee nas complot bi ñu ne bu ñu ko jaarale ci gendarmerie police ak yooyu bu ñu ko jaarale ci service état yi parce que day laisser ay trace day am archive ëllëg mën nañ ñoo topp na nekk na nekk complot boo xam ne dafay nekk complot bu officieux complot boo xam ne dañuy ut suñu ay nitu bopp ut suñu ay pexey bopp waaye nag léeg nag ñu jël ay moyen état dugal ko ci biir moo tax ñu dugal ci procureur dugal ci Moussa Fall dugal ci dégg nga maam Antoine Diome gis nga mënoo complot opposant bu mel ne Ousmane Sonko ci réew mi te doo ci dugal yenn état jël ay moyen état renseignement état yi dugal ko ci biir di déglu Ousmane Sonko di teg dil aviser procureur Bassirou Gueye dugal ko ci complot bi dugal ci Moussa Fall bi nga xam ne moom à l'époque comme ni ko mu la premier live am Moussa Fall la wax ni bi ñu ñëwaatee deuxième live bi brief nañ ko ba xamal ko ne Moussa Fall jamono bi complot bi am c'était un simple colonel gouverneur du palais effectivement booba Moussa Moussa Fall nekk gul le haut commandant de la gendarmerie

ak lu ñuy war a wax ñoom ñi ngi defaru fi mu toll nii jeeg bu ñu ñoom jeeg buy jaaru la xam nga jeeg jeeg bu toll ci sëy makki yow puudaru mees defar ba mu baax diw xeesal pour pour lan pour mën a jëkkër ñoom foofu lañ toll ñu doon def complot bi foofu lañ toll ñoom ñun lañuy ñuy moo tax ñun ci suñu communication dañu war a intelligent du li nga xam yépp ngay wax du saa su ne nga koy wax jamono bu nekk ci temps bi ni muy doxee ak dossier bi fu muy toll jamono bu ki nekk da ngay calibrer sa communication jamono bu nekk ak li nga war a génne li nga war a téye lépp ngay wax doo topp nit ñi waaw balancer ses preuves ana audio yi ana lii génneel lii waxal lii na patati patata loolu ñu koy wax yëpp ñu ci bari ñu ci bari ñoom ci état bi lañ bokk ñenn ñi ñenn ñi ay patriote lo xam ne xamuñu dañoo dañ kumpa ñun ñi wax ak yéen du yéen yéen ay atte Ousmane Sonko yéen ñi may déglu yéen du ngeen tribunal da ngeen ne dañ kumpa bëgg a xam rek su ngeen pare ngeen gëm wala ngeen weddi waaye du seen gëm ak seen weddi seen xam ak seen ñàkk xam mooy atte Ousmane Sonko Ousmane Sonko tribunal lañ koy attee ñun dañoo am affaire ak tribunal am na loo xam ne duñ ngeen ko jox yéen lu ñu bëgg bëgg bëgg ngeen xam am na loo xam ne duñ leen ko jox dañ koy téye parce que loolu dafa bokk ci la war a défendre Sonko suba ci kanamu tappalekat yi loolu moo tax dossier bi dafa laaj intelligence dafa laaj aussi stratégie dafa laaj ku maîtriser communication mhm. moo laa indi na leen benn tur bu bees muy Amadou Ba bi mu ne moo fay nervi yi doon rey nit ñi Amadou Ba mais loolu enquêtes yi wane na ko d'ailleurs am na ay enquêtes yu indi loolu dafa am ay enquêtes yoo xam ne ci biir gendarmerie bi bi coow li amee gendarmerie dafa diligenté une enquête interne te enquête bi li ko déclenché mooy bi ñu bëggee dàq capitaine Touré di ko tuumaal dafa loolu dafa déclenché beneen enquête interne boo xam ne il fallait que gendarmerie nationale def ko waxuma la bii nag de bu Moussa Fall bi gendarmerie bi def enquête bi muy la gendarmerie bi nga xam ne le général Tine bi Macky Sall dàq depuis Matam waxoon naa ko sama laay Matam la toll dàq ni mu ko dàqee rek ak fa mu ko dàqee ak circonstances yi mu dàqee général Tine da ngay xam ne y avait une crise au sommet de l'État parce que dañu bëggoon dugal général Tine ci mafia bi ci dil bi mu ànd ak ñoom ci dil bi ci liggéey bi pour que ñu falsifier affaires yi enquêtes yi capitaine Touré yëpp ñu wëlbati ko général Tine taxaw lànk na man je suis un soldat je suis de la grande muette, moi. J'ai prêté serment, moi, en tant que général de corps. Je suis un général de la gendarmerie. Vous ne me trahir la République. Moi, j'ai fait allégeance à la République. Je suis un patriote et un républicain. Je ne défends que l'intérêt général. C'est un complot qui me dougal duma ci Nous complot que Mahmoud Saleh et Moussa Fall gouverneur du palais nous complot pousse Macky Sall mu le général qui ñu Moussa Fall pour Moussa Moussa Fall a yor dossier Parce que dossier Adissar, Ousmane Sonko, c'est un scandale d'État maintenant. C'est le plus gros scandale de la République sénégalaise depuis 1960. Macky Sall toll ca Matam di def tournée économique yu tappaleen yooyu fa la jëlee décision décret dàq le général Tine nommé Moussa Fall pour que Moussa Fall léegi nag mu am benn mémise Moussa Fall léegi amatul limite ci dossier bi mais avant ñu koy nommé le général Tine moom moo moom moo nekkoon patron Moussa Fall Moussa Fall ñu ngi ci ànd nag Macky Sall mi ngi ci biir complot bi depuis le début que général Tine ñu ngi def ay enquêtes interne te enquête yi commencé wane implication Moussa Fall en tant que colonel gouverneur du palais Mahmoud Saleh Macky Sall ñoom ñëpp commencé nañ fenn ils ont ils se sont réunis ñu ne nañu dagg bopp colonel euh, nañu dagg bopp général Tine génn ko ci génn ko dagg ko yéege Moussa Fall comme ça mu ñu bu ñëwee nëbb lépp lii moo tax ñu le général un homme intègre digne un vrai soldat un vrai gendarme Moussa sans respecter norme yi nga ne Moussa général am na ñu ko sut ay grade sut ko jiitu ko ci gendarmerie gën ko gendarmerie fa si gendarmerie bi dafa am problème parce que su ma la jiitoo ci gendarmerie ëpp la ay grade raw la ci gendarmerie nga bàyyi ma fa man ñu ba noppi yow Macky Sall nommé la nga nekk sama patron léegi te maa la man maa la fa ëpp loolu day indi coow ci biir armée bi armée dafa laaj ñu respecté rang yi respecté grade yi respecté parcours yi respecte ancienneté yi respecté expérience dafa loolu lépp dañ norme la loi la loolu lépp dañ ko organisé Macky Sall dafa ñëw jalgati loolu ndax dossier bi romb lépp jalgati norme yëpp ñëw xëcc Moussa Fall samp ko ci kaw mu jiite gendarmerie yëpp parce que dossier bi dafa commencé senn dafa am ay problème léegi il faut que ñu jël kenn ku nekk ci biir complot bi yëkkati ko def ko général nga xam ne day fàtt tur yi day fàtt bën bën yëpp ba dara dootul senn mais c'est trop tard du lépp la ñuy xam wax lépp dañu leen di junj man damay communiquer informé wu ma de Mollah moom da doon informé moom da jox ay détails di leen kontal ay escalier di wax euh, Baye Fall bi dugg yelwankat bi loolu information la man dama leen ni man je communique informé ou ma il y a une différence entre communiquer et informer voilà bi le amé, kon nous le général Tin, tek le général Fall comme nous l'avons dit, la nous bi mu le même général Fall le commandant dans dañ koy yokkal grade Il nekk ci complot bi yëpp ñu yéegaleen jox a ay responsabilité bu ngeen ko le conseil bi nga xam ne au niveau de la justice militaire dafa am conseil bu problème amee ba ñu war a sanctionner kenn def enquête interne dafa am benn comité bu war a réunion restreint pour joxe seen avis ci kii dañ ko war a dàq wala waruñu ko dàq selon information d' enquête yi ñu am capitaine Touré bi ñu ne dañu koy dàq dañu def enquête boobu bi ñu defee enquête bi gis liggéeyam yépp jaar yoon

bu ñent ñi ne wër ñu ko dàq kenn dañ ko dàq Macky Sall bàyyi fa ñent ñi lañu wax jël li kenn di wax dàq capitaine Touré parce que dossier bi moo tax capitaine dafa xam lu bare bare bare bare enquête yi ci biir gendarmerie bi wone lu bare bare bare bare bare ñoom cinq yooyu nekkoon ci comité ba ñent ñi xam ne lii capitaine def amul luñ ko ci mën a toppee liggéeyam la def ci ni mu gën a mucc ayib c'est un professionnel de la gendarmerie yàgg def ay enquête d'ailleurs c'est pas pour rien que commandant Mbengue jox ko enquête bi gannaaw ba Moussa Fall nangoo enquête bi ci Dior Diagne ak euh, Antoine Diom. demul section de demul dit, comme ni Moussa comme nous ko Morgan waxee demul BAG nous li mu BAG mooy la BAG la brigade des affaires générales demu fa lu tax demul aussi fi nga xam ne mooy euh, centrale lu tax demul fenn waaye ñu yóbbu ko section de recherche parce que Moussa Fall dégg nga li mu wax nee na police ak yooyu dañoo bari dañoo réew làmmiñ dañuy wax nañ ko yóbbu gendarmerie la grande muette nga xam ne foofu ni ñi dañuy obéir man Moussa Fall maa nekk ci kaw kenn du sëqat li bëgg la ñuy def jël téléphone am câble la commandant Mbengue commandant Mbengue jël dossier bi ne ko amul problème moo mon mon colonel tu seras content je vais le traiter comme tu veux indi jëngu ko booy moom tamit jëngu ko capitaine Touré mais xamuñu na ñoom ñëpp capitaine Touré mu leen gën a gëm yàlla xamuñu ñoom la ñu fàtte mooy yàlla Moussa Fall commandant Mbengue Dior Diagne ak ñoom ñëpp duñu ay jullit gëmuñu yàlla ay nit ñu bon lañu dañ lay rey léegi ngi seen intérêt waaye dañoo ñëw ba ci suuf nag kañu dénk enquête bi muy commandant muy capitaine Touré nekk nekk nit koo xam ne alquran rek lay déglu gëm yàlla lool foofu la yàlla dugalee nag ay mbiram na saraax to gis na yàlla boo ko boolewul ci say mbir day toog bàyyi la ngay dem ba dugg nag ba dugg ba sës xam nga yàlla moo na ne feeñu dès le départ te bañu koy sos mu yebal leen koo xam ne day lànk ca njàlbéen nga mais da leen a këppatal da leen a teg ndëgg sërëx ñoom ñi ci kaw kenn gëmu ci yàlla pour ñoom ñooy yàlla ci kaw suuf bu ñu bëggee rey Sonko léegi dañ koy rey teg seen i ndëgg sa mbir mi dox di dox di dox ba agsi ci suuf capitaine Touré fa nga xam na fa la ñuy déposé plainte bi ba ñu dugal plainte bi nag yàlla tëj nu yàlla tëj mbiri nag ndar képp leen ci capitaine Touré la ko jaarale yàlla moo bari xikma yàlla du nit yàgg nañ leen ko wax du ngeen ko dégg du nit nee na bàyyi ñoom ñëpp bañ dugg ci seen këpptal bañ duggul seen i piège ba teg seen i nas seen i du duñu julli duñu war foo leen fekk naan sàngaraak nappaja ay jeeg Macky Sall ak Dior Diagne ki yem ak Antoine Diome ki Moussa Fall ki euh, Mahmoud Saleh Mamour Diallo ay doomee xaraam lañu baaxuñu yàlla balee nag seen i pexe nag noppi nag yàlla ñëw ma saraax pexem jël ku ci gën a tuuti gën a cee nekk ci suuf muy capitaine Touré yàlla yoof ko roof ko leer ak ak ak wu fit capitaine Touré moo yàq liggéeyu Macky sàll bu Abdallah Dionne Antoine Diome Dior Diagne Mahmoud Saleh directeur de cabinet Moussa Fall bi nekk léegi général de la gendarmerie procureur procureur de la république ñoo ñëpp état Sénégal yëpp tàmbalee ko ci Macky Sall dañoo teg seen këppatal ba agsi ci capitaine Touré ci suuf mu jël seen yelwaan yépp xëpp ko ci mbalit benn nit moo leen tee dem capitaine Touré lu tax parce que capitaine Touré dafa gis ni li du ay tappale la montage la ndaw si ñu boole ndaw si xamul lu xew dañ ko ci dugal lépp ngir lan ngir bëgg a faagaagal benn nit boo xam ne deful yëgul timul enquête yi mu def yëpp waaye na nag Sonko li ñu koy waxal dara amu ci mu taxaw ne leen lii amul ñu nangu enquête ba ci moom Bassirou Gueye la ca des yéen a ma a xam bi mu jëkk la ca xew yëpp kayit yu ban yañ ca dugal ak la ca yëpp xam ngeen ko léegi nag dañ doon laxas di laxas di laxas di laxas ba faf laxasu xam nga di laxas ba yàgg nga laxasu ji li ngay laxas laxasu laxasu bopp xamatoo léegi nooy laqartee laxas bi ndax buum gi nga doon laxas dem naa laxasoo laxasoo laxasu ba catu buum bi réer na la ci biir laxas gi xamatoo foo gisee catu buum bi pour mën koo laqarte loolu moo dal Macky Sall la ñi mu àndal dañoo laxasu ba faf laxasoo dañ doon laxas ba faf laxasu ba xamatuñu ban cat ci buum gi la ñuy jàpp pour laqarte li ñu laxas tey ngeen dee da ngeen a xamul Ousmane Sonko lu ko yaayam boote xamuleen nu ko yaayam jure xamuleen lu Ousmane Sonko seq ak yàlla moo tax ma laa ne na Ousmane mi ma ne ko yàgg naa leen ko wax de ne woon naa leen ci samay live yéen ñi may topp moytu leen nguur si Ousmane Sonko lu ko waaye mën a dimbali sa la xeex def ko soo ko mënul bakkoog xeexam bu ko xas bu ko pexeel bu ko saaga boo ko def dara boo ko defee da nga ko gis yàgg naa leen ko wax yen ñi may topp de waxuma ñi fi dugg tey ñi nga xam ne tey lañ ko déglu yéen ñi may topp bés bu nekk yàgg naa leen a wax na kii du nitu kese ba leen jàmbur yàgg naa ko wax de du nitu kese dafa ànd ak yàlla ju mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk moo tax Macky ba mu bësee bës a bës lépp ne teg doxul mu ne kii dafa mystique ma ne ko waaw dafa mystique kay Ousmane Sonko ku mystique la waaye mystique bi gën ci mystique la am mooy mystique borom bi subhaanahu wa taala mystique yàlla la àndal bokkul ak sa mystique yow fétiche yi nga xam ne ba nga demee ba gis ne ki dafa mystique nga yebal sa jabar Mariam Faye Sall moo fi taxawoon na dossier yu luur yi man maa koy téye ba dossier bi demee ba diis ci Macky Sall Mariam moo jóg demu ci ay fétiche Inde fu ne mu dugg fa ngir dal ci kaw Ousmane Sonko waaye fétiche Inde ak bu Chine ak bu Sénégal a yàlla bu dugalee loxoom rek lépp ay waaf du ngeen am ndam daa iman yàgg na leen ko wax yéen ñi may topp yéen xam ngeen bu baax li may wax parce que man du ma répété ak ñëw naan waxoon na lii ci dëggal na ma tout ça loolu intéressé wu ay ma laa wax na ko mais maa ko waxoon avant Ousmane Sonko je ne suis pas dans ça ça m'intéresse pas yéen lay waxal am ngeenum xel ñi may topp ñoom xam nañ li may wax ak lu ma dul wax léegi bëgg nañoo def complot bi te ñu koo jaarale ci état waaye nag daa daañuy tricher daañu jéem a falsifier pour jël ñenn nitu état dugg ko ci bi dossier bi boo leen jàppee ñu ne respecté woo état mooy Ousmane Sonko bu jógee dal ci kaw justice bi ñu ne dafay attaqué justice bi dalee ci kaw Macky Sall ñu dafay attaqué institution bi pourtant ñi muy attaqué ci biir justice bi ñoom lañ jël dugal leen ci biir complot bi ñuy complot ci turu état te duñu tudd état. Bassirou Gueye état koy fay procureur la république ñu dugal ko ci complot muy complot kooku Ousmane Sonko amul taxaw amul taxaw ne justice bi elle est corrompue amul taxaw ne justice bi dañ koy utiliser pour des questions politiques politiciennes su ko waxee ñu ne justice bi waa génn ku nekk di génn ñu del ci kaw Ousmane Sonko pourtant Ousmane Sonko li mu lu leen nañ lu na fang lu kenn du ko ci yàq dafay instrumentaliser justice bi pour xeex ay opposants ñoom dañuy xeex Ousmane Sonko man nañ ko xeex ci mobilisation mën ko xeex ci campagne mën nga ko xeex ci wax mën nga ko xeex mais mënoo koo xeex pour tëj ko ci kaso bi xeex boo xam ne yow jëmtuwaay bi yëpp mooy sama noonu politique la bëgguma mu toog ci réew mi dama koy xeex am nga ci droit waaye da koy xeex de façon conventionnelle da nga koy xeex ci xeex boo xam ne yoonu réew mi nangu na ko mais mënoo jël doole réew mi jël renseignement réew mi jël ay ndaw réew mi liggéey réew mi réew mi di leen fay ci wàllu justice ci wàllu armée ci wàllu renseignement ci wàllu administration lépp nga jël yow Macky Sall ak say nga jël loolu pour ñu xeexal la xeex boo xam ne xeexu politique la loolu état du ko nangu loolu Macky Sall dañuy fàq suñu ay yet reyanteeg yow ci saasi moo tax ndaw ñu taxaw dañuy xeex ak yow da nga ñu rey wala ñu rey la mais du jàll boo ci ànd ak Moussa Nawel koo ci mënta ànd ak yow Moussa Nawel Mbacke ba ci Touba bu la neexee nga ànd moom su ñoon newu ci dañuy xeex li ñuy xeex moo mag Moussa Nawel Mbacké li ñuy xeex moo mag El Hadj Malick Sy li xeex moo mag Serigne Touba Sénégal la ñuy xeexal ndax Sénégal la mag ñoom ñëpp ñoom ñëpp jóge nañ fi Sénégal a ngi fi man mii wax ak yow dinaa fi jóge Sénégal des fi Ousmane Sonko dina fi jóge Sénégal des fi Macky Sall dina fi jóge Sénégal des fi yow mi may yow mi may déglu di nga fi jóge Sénégal des fi kon Sénégal la mag ñoo ñee Moussa Nawel Mbacké ñëpp ci yem li ñuy xeex amuñu ci xel ñaar ku taxaw suñu kanam di complot ak Macky Sall dañuy dal ci sa kaw nga sant Mbacké nga sant Sy ci yëpp wax day leer nous sommes des républicains nous sommes là, nous nous défendons, nous nous, nous, nous, nous battons pour défendre la République et l'intérêt général. Nous sommes des patriotes et des républicains. day l'air, quoi day l'air La yi bu leen neexee ngeen mel seen sëriñ si je m'en un fou, sëriñ si ñu si ëpp ay comploteurs lañ sama yoon nekku ci je crois pas ça sëriñ ci ma gëm xam naa leen yenn sëriñ waxuma ñëpp nag am na suñu baax njub ñoo xam ci deug deug machallah allah ñoom dama leen di tiitaroo njub doo nga lay wër xawma serigne xawma ku sant Mbàkke ku sant sama yoon nekku ci xam nga la may wër ku jub bu santee Mbàkke xayrun bu santee si xayrun bu santee jaxumpa xayrun nu mu sant peu importe na nekk nit ku baax ku jub ku nekk ci li nga xam ne mooy suñu njëriñ ñun ñëpp mu duñu ko xeexal ànd ak ñun ku ko mëntu toppatoo wu ma ay sant yàlla yàlla wàcce wu fi nit ku am sant yàlla ay nit la fi wàcce nañu na ngeen baax te moytu gu mbon ci loolu lay dox ku baax laay xam ànd ak moom ku bon sama yónni wu ci bu la Sëriñ Tuubaa juree boo bonee sama yónni wu ci toppatoo wu ma la bu la Alaaji Malik Si juree boo jëlee sama yàlla ay nit la fi wàcce wàcce fi mbaax ak mbon nit ku baax laay wër nit ku bon noo mënti sant sama yoon dama lay dama lay tamponné sama avancé yéen a nekk ci loolu man ma ci lool wax day leer. dinaa ci ñëw Diagne Ndiaye ubbi woon naa ko tamit mi ngi ci biir complot bi Diagne Ndiaye mais moom beneen complot la beneen niveau contre Ousmane Sonko avec des étrangers ubbi woon naa ko temps mais dossiers yi ñoo bari mënoo nekk fépp. da ngay junj am ñu la war a jàppale mais kon la jàppale mënu nekk fépp daa si ñëw léegi dugg nañ ba ci biir seen complot bi ñoom ci seen kaw yëg nañ ko mais ñu nekk ci suuf yëguñu complot bi capitaine Touré ñoom bi ñuy nas seen complot boole wuñ ko ci ba nga ko enquête bi <laughs> moom xam nga moom <laughs> buñ ko boole woon ci complot bi sax donte du ci ànd waaye ñu woo ko ne ko capitaine kat dafa am lu ñu bëgg xam nga benn deal kërë kërëb jàppal bàyyi nga def PV bi defe ko noo xam ne suñu affaire dina set mais ñoom comme capitaine commandant Mbengue moo koy commandé rek Moussa Fall moom ne amul problème rassure leen comme ni ko Mollah waxee affaire bi dina jàll t'inquiète on gère <laughs> fekk xamuñu ne gis nga lu waaye duut ci yàlla gëm yàlla ko gën lu waay duut ci àdduna gëm yàlla gis nga ni ku gëm yàlla gëm yàlla gëm yàlla gëm yàlla benn affaire waxuma gëm yàlla nag waxuma seen gëmu làppatoo yi de waxuma gëm sëriñ gëm yàlla laa wax mooy wóolu yàlla yàlla boo ko gëmee da ngay fit te li lay may fit mooy da xam ne boo waree dee moo lay rey kenn mun laa rey Moussa Fall ak Macky Sall ci capitaine Touré foofu la toll capitaine Touré dafa jàngal Sénégalais yi naka la ñuy gëmee yàlla loolu la ñu jàngal ñun ñëpp naka la ñuy ñun ñun gëmuñu yàlla ñun dañoo ragal yàlla dañ ko ragal mais gëmuñu ko wóoluwuñu ko capitaine Touré daf ñoo jàngal la yàlla dañ ko xoola capitaine Touré fi mu fi mu toog ak ñi mu ko seqal ci ñoo xam ne def ngeen di yéen waaye xool ko taxaw temm jël boppam wéer ci yàlla xam na am yàlla ñàkk yàlla aha kooku daf ñoo jàngal ñun ñëpp lan mooy gëm yàlla ndax gëm yàlla mooy wóolu yàlla gëm yàlla mooy waxilu ci yàlla gëm yàlla mooy boo doo waat ci barki Serigne Touba ci barki Alaaji Malik dé ci yàlla ngay waat ndax ñoom ñooñu ñëpp ña nga ca yàlla tey yàlla rek moo fi nekk moo dul de capitaine Touré loolu la ñuy jàngal ci dossier bi ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਰਿਆਈ ਜਾਂਗਾ kon ñu gis ci biir dossier bi yu bëree bëri bëri yoo xam ne moo Mollah Morgun indi na ko mu nekk loo xam ne man sama bopp man personnellement dama ko approuvé man ci boppam dama ci ànd moom. am na ay tur yu mu génne yoo xam ne au ma ko woon moom moo ma ko xamal comme am na ay tur yu ma xam yoo xam ne moom génnewu ko wax ko mais c'est normal parce que voilà mënut a mënut a détailler lépp aussi ça prend du temps live yi day gudd. li ci am solo wax na ko la des yéen ñi koy déglu yéenay yokk seen gëstu loolu tamit bu ñu toog rek nit ñi boo ko mënee soo ko mënul tamit nga déglu toog ba taataan ba dayaat keneen koo xam ne am na lu mu ci xam lu mu ci dolli nga jël boole pour nga xam parce que ngeen war xam rek opinion bi mais du yéen yéen bon si di ngeen am ngeen seen xalaat ci mbir mi ñu ci bari léegi xam nañ ne mbir mi complot la ba taay opinion bi moom mbooloo bi moom xam nañ ne Ousmane Sonko dañ koo tooñ dañ ko loolu moom amu sax sikki sàkk même ci biir ñi ànd ak Macky Sall ñu ëpp ci ñoom xam nañ ne lii complot la ñoom ñëpp si ëpp ci ñoom tey ñoom seen biir ànduñu ci li waaye mënuñu ko wax ci kaw ci suuf lañ koy wax muy agsi ci ñun ñu xam duñ sutee ay tur parce que boo koo fi tudd turam ñu dagg bopp bi bi ma laanee sama góor gi ci pale bi fu ñu toll nii pale ba ña ngi koy ganax yaag fëgg bi ñu fëgg pale bi mbóot yaag ganax yëpp ngi génn ndaka pale bi li fa nekk ci ay mbóote gi ganax du jeex ña ngay fëgg fépp fu ñu toll nii réunion de crise pompe yi baygon yi la il baa ngi riir fi mu toll parce que traître yi nekk ci biir palais bi il faut que ñu génn la ñu wax man leen na ngeen leen ubbil benn Kopar Express boo xam ne eau de javel lañ ciy def omo saabu ak ay citerne ndox comme ne nañu raxas palais bi ba mu set fi mu lu ci waaye am na ngeen leen ko jàppale ñu raxas palais bi ndax nañ leen tóob yi nekk ci palais bi ñoo yàq seen liggéey ba ñoo ñoom mënatuñoo def léegi Macky Sall dafa war a daanu Macky moom dafa war a daanu léegi dil bi leer dafa war a daanu Mohamed Sidi Ahmed bi dem États-Unis ci mala laa ko yëgee yëgu ma ko woon waxtaan wax dëgg mala moo ma xamal ne Sidi Ahmed Mbaye dem na génn xaw ma ko woon Copper mhm. bi asib du jël xaalis nag assible lay omo euh, saabu ndox serpillère bay gon lépp lu rey mbóoti jinax yooyu asi Kopar Express bi loolu lay jël du jël xaalis bu ci kenn def xaalis du jël ñoom am nañu xaalis li ñu amul kay mooy lu ñuy nettoyé palais bi ba génn nag traître yi ñoom ñoom ñun nag ñooñu du ñu ay traître de ñu ci palais dañuy informé ak ñu nekk Mermoz di ñu wax li Macky Sall yi añee lu muy réere dimanche ña fay daje ñëw dugg di génn yëpp ñu xam ko patriote yooyu ñoom ñun ñooñu du ñu ay traître ñoom ñoo leen jàppee traître parce que ñoom seeni ndëgg sërëx ñoom ànduñu ci duñu informé duñu wax duñu jox ay élément waaye nee naa leen du ngeen du li ngeen di def du sotti du sotti daa iman du sotti ndax dañ leen a jekku am élément yépp xam lépp Ndeye Khady Ndiaye barki démb lañ ko interroger Omar Maham Diallo juge le doyen des juges bi yor dossier bi woo ko ci bureau mardi bi passé suba lay am une semaine di ko interroger ci biir interrogatoire bi le substitut du procureur Amary Maga woon ci biir mel ne moom mooy doyen des juges bi di enquête Ndeye Khady Ndiaye di ko laaj lu ne lu ne lu ne sonal ko lool ba mu defal lu ma presque dix heures de temps presque mardi bi passé ba mu génnee Ndeye Khady Ndiaye da doon miir ndax sonn coono bu ko amari fay boobu teg nga xam ne mooy substitut du procureur ñëw taxaw taxawaayu doyen des juges jël enquête bi di ko enquête jamono boobu moom substitut du procureur bi Bassirou Gueye mi ngi ci pale bi di wax di wax ak moom moom ak Bassirou Gueye ñoo nekkoon en contact direct loolu informé nañ ñu ko loolu ñun xam nañu ñuy entendre Ndeye Khady Ndiaye ci biir bureau procureur ci biir bureau doyen des juges substitut du procureur ki la ki nga xam ne moo topp ci procureur ñëw dugg ci biir bureau bi toog jël enquête bi enquêté ko di laaj Ndeye Khady Ndiaye te enquêteur bi nekkul moom ki war a laaj Ndeye Khady Ndiaye mooy le doyen des juges ndax moom lañ dénk dossier bi muy Omar Maam Diallo mais Omar Maam Diallo dafa mujj toog di xool Ndeye Khady Ndiaye substitut du procureur bi moo nekkoon di questionné Ndeye Khady Ndiaye ndax lan ñu ngi coordonné ak waa palais bi direct ci téléphone am Bassirou Guèye di ko yónnee ay question laajal li waxal li kër kër Bassirou Guèye moo toog ca palais ba di interroger Ndeye Khady Ndiaye ko ci substitut du ci ban réew la ñu ne ci ban état la ñu ne la ñu moo tax Mollah Morgun wax na dëgg nee na ma nee na nee na Bassirou Guèye ba léegi mooy yor dossier bi ma nga ca palais bi wax na dëgg Omar Maham Diallo bi ñu nommé bëgg démb des juges la mu remplacé Samba Sall te yor dossier bi te woon day xada dara dañ ko faa tegandi mu mel ne potu Sambour moom dañ koy defloo lu mu def palais Bassirou Guèye la Macky Sall indi ci palais bi mu yor bi mooy tànn ku ñuy woo kañ lañ koy woo lan lañ ko war a laaj moom sax ci séance bi Ousmane Sonko bis bu fa demee toog bis bu ñu woowee Sonko ba mu ñu di ko entendre substitut du procureur bi dina ñëw toog lii mën naa leen ko noté leen ko bu baax a baax dina ñëw toog ci bureau doyen des juges bi yor téléphone am Ousmane Sonko dina ko gis muy communiquer téléphone ba Bassirou Gueye lay waxal moo koy wax waxal li waxal lee laajal li man maa leen wax loolu. ci ban réew la ñu nekk état amu fi. réew amu fi il faut créer la révolution pour la départ de ces voyous au sommet de ay voyous ñoo fi nekk ay bandi dégg naa nag Dior Diagne jóg nga informe nañ ma ko sànq Dior Diagne dégg naa nga taxaw fipp toog nga ci sa biir kër ne léegi nag lay xeex bi soog a tàmbali ñu ne xaa ah, nga ne waaw léegi damay jog xeex nag léegi maa ngi doon xeex ci suuf waaye léegi nag damay takkaat sama ndégg jóg taxaw xeex ak Ousmane Sonko jaar fa bon daggal ko dagg nday yu saaga bon yow joojaañ Ousmane Sonko dinaa nangam taan ndayam ba mu xam ne du ma moromam ndax léegi nag damay jóg taxaw nag yaa ko wax de ñu ne tax nga ne parce que su ma ko bàyyee mu falu président man joojaañ damay exilé wu à damay génn Sénégal même bu ma deyee duñ ma suul Sénégal te loolu du ma ko seetaan man Ousmane Sonko dinaa nangam taan ndayam ba du falu ci réew mi ndax bis bu faloo damay génn réew mi te ma génn réew mi dootuma ñëw même su ma deyee kenn du ma fi suul ah. Motas tax ne léegi da ngay xeex nag léegi da ngay taxaw ah ñoo ngi lay xaar ñoo ngi lay xaar lay xaar ah Allah Jor Diagne da nga xam ne kéwal du tëb doom ji bëkk xam sa bàyyi Ousmane Diagne kewal du tëb doom ji bëkk rek nga mëna mel mëno baax sa ndey penere di nga làq ci sa kër googu nga xamne kenn du ko gis mi ngi dund sa ndey penere penere ñaan penere ñaan ni nga tëj nekku tejj dof ci sa kër goge nga xam ne yàgg say doomu bàyyi ko bokk bokk nga fokkati ko ci seen loxo ne sa bàyyi la fi bàyyi fen fen tey xëpp jël sa kër bàyyi téye miraasoo sa alalu bàyyi su la société SAR bi sa bàyyi bàyyi nga xam ne ci hydrocarbures loolu liggéey nga téye ko kidnappé Mariam Faye Sall di woo directeur SAR ak waa Petrosen ñu lay jox ay marché milliards ci transport hydrocarbures bi nga tocc yor say Auchan yor say business di manipuler Mariam Faye Sall dof bi di manipuler Macky Sall di woo Macky Sall di wax ak moom léeg-léeg ci ay milliers toog jël sa téléphone def ko haut sooy wax ak Macky Sall haut dégg wala ngay wax ak Mariam Faye Sall ñu di ko haut-parleur nit dégg nga fa ñun xamuñu loo teg xam nañ ko foo dugg xam nañ ko duñu leen may jàmm léegi nag Ousmane Sonko nga ne moom ngay xeexal ñu ngi lay xaar yow Dior Diagne da xam na lépp dëgg la yaay puus Macky ak Mariam yaa yor état mais bu len mayli mais nangam tanal sen day yow ya, la yàlla jox doole ñii dañuy fonto jor Diagne lu Macky Sall dugg ak maram fay Sall jor Diagne mo len ci dugal ak Antoine jom mo len di manipuler ñom ñep di len jaay ne peegar la tek ay champagne di dóor mo la neena na Sall day tux ma ko wax nga deug day tux day nan day saga nday ma ko xam nga Macky Sall bu baax ñun ñi xam Macky Sall ñun ne Sall man dama ko xam personnellement man dama ko xam man daf ma xam man Macky Sall xam na ma day tux day nan day saga nday yéen Sénégalais lay nax mais man du ma nax préparé leen nag bu leen kenn bett de dañuy xeex mënut a ñàkk ñii xeex moo leen fi jël reyante ak ñoom moo leen fi jëlee ay wuyu lañu ay bandi lañu ba noppi nekk ay kaw kaw xamuñu état respecté wuñu république bi xamuñu état ñu jaxase lépp Moussa Fall doomu Abdou Karim Fall AKF dëkk ndànd xam nañ la xam sa ndey xam say doomu baay xam ñi nga bokkal yëpp xam sa histoire famille yow Moussa Fall le haut commandant de la gendarmerie moytuñu de dañu xam ci yow sa dossier daañu ko génne dañuy xeex de yéen a ko wax gat sa gàtt sa yéen a ko wax jéggal leen ma ci kàddu yéen a ko wax de yéen ñu ci woo Dior Diagne ak Moussa Fall yéen a ngi tëkku nag ak menace yéen a ngi woo ñenn ñi nit ñi di leen menace di tëkku ñenn ñi lu ngeen menacé lu ngeen tëkku yëpp xam nañ ñu ngi seen ay audio ñi seen ay appel téléphonique ñi ngeen yépp ak ñi ngeen menace xam nañ leen ñi lépp consigné xaar procès lépp dina leer daw ak daw ci yam ku ci daw it dañ lay foo mënti nekk ci àdduna bi nañu loxo dafa ngeen di daw ha ah. ay di daw fii ay Sidi Ahmed Mbaye di daw ñu prenez votre temps soyons patient nañu daw yow koo xam ne buñ ci ñoom ñi seq mbir mi kuñ ci suul ci bu ngi demee ñun ba jot réew mi dañ lay fekk ca bàmmeel ba sulli la sulli dañ lay sulli dugal la ci kees teg la ci tribunal bi ñoom ñi seq mbir mi ku ci dee dañ lay sulli teg la ci kees teg la ci tribunal bi atte la soog lay delloo suulaat looy daw fu ngeen daw jëm bu leen daw ku ci dee sax dañ lay sulli di nga fekke tant yàlla tasul àdduna bi daañu la taaj dugal la ci kees jël sa yax fekkee dee nga bañ sulli yax yi dañuy dem sulli ji bàmmeel dañ koy sulli jël yax yi def ko ci kees tegale ko teg ko ci kaw taabal ci tribunal bi àtte la daan la dellu suulaat la di xaar nag àtte yàlla ëllëg li ngay daw bu leen yàkkam ci patriote bu leen topp daw bi kaw kenn bàyyi leen leen ñuy fëyi fëyi dugg nañ ci laxas boo xam ne duñu ko làqati ba yow la xiyaam yi man maa leen ko wax dañ leen a jekku du ma wax lépp nag Amadou Ba Amadou Ba moo laa indi na ko ci reykatu nit yi Amadou Ba moo leen fay loolu xawma ko woon man laa ko indi a na dëgg waaye Amadou Ba xamoon naa leneen ci moom mooy Amadou Ba gis nga dilu 94 milliards yi Mamour Diallo ngeen ko tuddee Mamour Diallo booyo Amadou Ba la mas naa ko wax ci sama laay pour ñu may suivre Mamour Diallo dilu 94 milliards yi xam nga tay bu njaay Tayru Sarr daj na day liggéey moo koy jox suuf muy jaay ak di jënd 94 milliards Tayru Sarr la ñu wax moo créé ay société Sofinko xaw ma ak leneen lan Tahirou Sarr boobu Mamour Diallo lay liggéeyal Mamour Diallo Amadou Ba lay liggéeyal bi Amadou Ba nekkee directeur général des impôts ci la Mamour jàll commencé am ay ndomba tànk ci la ko Amadou Ba nommé def ko directeur des domaines bu Rufisque mu jaay suuf sa fa nekk yëpp lii lépp bi Mamour Diallo nekkee Rufisque la Amadou Ba moo ko fa nommé Amadou Ba mooy chefu mafiaawu suuf Sénégal Amadou Ba bi ngeen gis ancien ministre des finances ancien ministre des affaires étrangères bi moom moo fay nervi yi doon rey nit ñi am na ñu rëcc ba ki ci mujj démb fan yi la génn dem réew mi ñoom ñëpp dañ leen jàpp jëlul ñu daw chirurgie esthétique ak làqatoo ci yem on va les traquer partout dans le monde et on va les traduire devant la haute cour de justice ou bien devant la cour pénale internationale pour crime lii ma maa leen ko wax ma leen ko waxee gëm leen ma Amadou Ba du ci mujj dégg naa nag dégg naa laaj naa ko ma laaj ci benn poste Amadou Ba mi ngi jéem a woo Mollah depuis bërki démb pour bëgg ko corrompre jox ko xaalis pour Mollah bañ a wax Mollah faalewu ko tëj téléphone am dàq ko am naa information yooyu Amadou Ba mi ngi def le tout pour entrer en contact ak Mollah Morgan pour corrompre ko mais côté boobu nag seen xel dal Mollah je sais que c'est pas le genre du genre nit yuy jël xaalis loolu moom nag seen xel dal mais Amadou Ba mi ngi koy jéem voilà sotti ngeen xam ne kon Mamour Diallo bi ngeen di tudd Tayru Sarr bi nekk ci suufu Mamour Diallo Mathiam bi nga xam ne mi ngi ci dil bi ñoom ñëpp Amadou Ba la ñuy liggéeyal Amadou Ba mooy capot bi c'est un multimilliardaire il pèse plus de deux cent milliards minimum deux cent milliards yu nekk ci ay comptes minimum Amadou Ba Amadouba, ancien ministre des Finances. Amadouba, ancien ministre des Affaires étrangères. Amadouba, ancien directeur général des emplois et domaines. Amadou Ba bi nga xam ne moom la Macky Sall ne woon jàppaleel Diouf Sarr pour mu gañe Dakar Diouf Sarr ñàkk Dakar Amadou Ba bi ma leen wax barki démb ne leen dafa commencé xuloog Macky Sall Macky Sall bëgg ne ko Amadou Ba moo saboté suñu campagne ci local ba ñu ñàkk su gañewul Amadou Ba moo tax ñoom Moussa ñëpp ñu mer waa benn boo ko yaakaar yëpp dem ci Macky Sall ne Amadou Ba day saboté suñu liggéey ndax li nga ko waroon a def premier defoo ko li Barthélémy Dias du ma ñu Amadou Ba boobu moo lay xeex ci suuf ba Macky Sall ak Amadou Ba duñ ko dënte fi mu toll Macky Sall daf ko nar a taxawul tëj ko dal ci kawam Amadou Ba boobu moo bëggoon lu neex Macky Sall ci caw Ousmane Sonko ba jël ay nervi ci ni ko Mollah Morgun waxee ba ñu rey 14 personnalités yëpp Amadou Ba va témoigner il sera donc poursuivi moom Amadou Ba moom sa carrière politique est terminée Amadou Ba boobu nag mooy patron Mamour Diallo 94 milliards yi Amadou Ba ci boppam moo ko géré moo tax bi ñu defee enquête bi bi ñu def seen faux ak usage de faux ni ko Ousmane Sonko waxee amuñu homologation yi ba Mamour Diallo def écriture yaak yooyu faux usage faux yi ba xaalis bi génn Amadou Ba moo nekkoon finance Amadou Ba moo jox ay ordre na xaalis bi génn nañu fay parce que Amadou Ba mooy autoriser les dépenses Amadou Ba moom moo ne nañu fay su Amadou Ba lànkoon xaalis bi du génn 94 milliards yi Amadou Ba moo ko génn parce que moo koy encaissé waat il pèse des centaines de milliards Amadou Ba mooy chef gang bi pourquoi parce que dafa bëgg a nekk président Dior Diagne bëgg def Antoine Diom président pour nekk premier dame donc xeex bi nekkatul sax contre Ousmane Sonko mais ñoom ñëpp pour ñu nekk président il faut que ñu neexal Macky Sall te neexal Macky Sall mooy rey Ousmane Sonko moo tax ñoom ñu bëggoon rey Ousmane Sonko pour bàyyi Macky Sall am lu ko neex su paree ñoom ka rey Ousmane Sonko Macky Sall xëcc ko ne ko yow laay bàyyi réew mi bu mel ni réew mi ñoom dañ koy passante ñoo ko moom daal lu ñu donnante la mu mel ni ñun suñu carte yi ak suñu vote yi ñoom toppatoo wuñ ko da ngay reyante ñoom ci léegi seen biir ñoom ñu bëggoon a rey Sonko pour que man fee toog ñoom ñooy reyante léegi seen biir léegi nag yàlla dafa wëlbati mbir ma nag dóorante ñoom ñu reyante seen biir fi mu toll balaa yàgg da ngeen dégg xeex bu metti ci réew mi lii ma laaj wala ma gën wax te ànduma moom mooy lim na dañuy préparé Karim Wade yooyu loolu gëwuma ko loolu mënta ne mënta ne loolu erreur la loolu xay na loolu sax bokku ci dossier bi waaw loolu dossier loolu moom interprétation la loolu xalaat la mais loolu mënta ne parce que am lu bari lu tax mënta lu bari bi ci jiitu mooy Karim Wade il n'est pas électeur il n'est pas benn nekkul ci Karim Wade code électoral bi moo ko dàq mënut a falu mënut a voté loolu mi ngi ci code bi ba léegi moo fi nekk moom ak Khalifa Sall benn ñaareel bi mooy nee dañ koy amnistie amnistie du Macky Sall moo koy def amnistie député loi la député moo koy voté ñu ngi dem ci ay élection législative Macky sàll bu opposition bi liggéeyee yeewi askan def investiture yu baax àndandoo Macky Sall du am assemblée da koy ñàkk du ko ñàkkee mënatul mënatul am loi pour Karim Wade ñetteel bi mooy dañoo Karim Wade daf ñoo amee 138 milliards yoo xam ne Macky moo ko wax de du man maa ko wax Macky ak Antoine Diome Georgia ñoom ñoo taxaw ne Karim dañoo amee 138 milliards yu ñu sàcc réew mi ba ñu génne ko réew mi loola loola loola loolu dañ koy lijjanti mu ñett mu ñett dégg nga ñeenteel bi mooy Karim Wade pour mu nekk président a ah, Macky Sall la koy ngemb waa APR ñoom fu ñu taxaw Amadou Ba bi samp na dem Aly Ngouille Ndiaye ñoom Amadou Makhtar Cissé ñoom Mimi Touré bi doon bi doon créé di moom mooy loolu Macky dafa problème bu mu war a réglé moom ak waa APR rek benn boo ko yaakaar Moustapha Niass ak ñeneen nga yaakaar ñoom dañuy nelaw ak waa PS yi dañuy mu toog ba mu doyal di wooy ñoom toog nelaw loolu waa APR duñu ko nangu waa AFP duñu ko ko nangu loolu moo laa a doon da techniquement mënta nekk politiquement mënta nekk jour mënta nekk à aucun point de vue mënta nekk loolu moom patriote bu leen sax tardé seen taal loolu loolu man maa leen ko wax fii noté leen ko mënta nekk. ñun dañuy suivre dossier bi xam nañ li wax lan la lu mën a nekk lu mënta nekk yëpp xam nañ parce que dañ leen xam ñoom ñëpp xam enjeu yi xam problème yi xam yi nga xam ne dafa lëju ñu war ko lijjanti yombul de Idrissa Seck moom qu'est-ce va faire moom lan moo boole Idrissa Seck ak Macky Sall di ngeen xam lu ko Macky Sall ba mu nangu lépp ñëw ànd ak Macky Sall Idrissa Seck moom il va accepter que Karim Wade nekk ci ginnaaw Idrissa Seck Karim Wade xanaa xamul lu ñu seq daal Idrissa Seck soo baax nu muy def moom day topp ci ginnaaw Karim Idrissa Seck Karim il se parle même pas xam yoo xam ne ñun dañu xam histoire de politique Sénégal xam contentieux yi kii kii kii fait quoi ñu compatible ak ñu incompatible Idrissa Seck di mbër bëgg a remplacer Macky Sall Macky Sall dig ko ne ko da ngay ñëw ànd ak man ma préparer la pour nga wuutu ma Idrissa Seck ni ko ko Macky waxee noonu la ko waxee ku ne Macky ñëpp lay nax Macky falul kenn Macky benn candidat la am bu fi jóge benn muy Abdoulaye da Diallo su amee ku mën a ku bëgg fal bëgg ko fay bàyyi mu wutu ko Abdoulaye Daouda Diallo la du keneen te loolu mënta nekk xam na ko ma wax leen lu leer noté leen yéen ñi may suivre bind leen Macky su amee kenn ku mu yéene place bi mu toog ci pale bi Abdoulaye Daouda Diallo la du keneen amul ñaar su ko waxee Karim da koy nax su ko waxee Idi da koy nax su ko waxee Aly Ngouille Ndiaye da koy nax su ko waxee Amadou Makhtar Cissé da koy nax su ko diggee Mimi Touré da koy nax man maa leen wax loolu man njuuj njaaj la Macky di xam moom ci day njuuj njaaj Macky amul kàddu lu mu la wax day fen kon Mollah su ñëwee noonu Karim la ñuy préparé day ñëw loolu wax na ko rek mais waxul nu nekke man maa leen wax ne mënut a nekk démontré leen ko yi éléments yi ma fi joxe yëpp bu ngeen ma ko lijjantilee ba nag ngeen ñëw ñu dajawaat fii ñu wax ngeen wax ma naka lay nekk jox naa leen raison yi nga xam ne moo tax mënut ne dafa am ay obstacle objectif matériel yoo xam ne mooy tax loolu c'est pas compatible c'est incompatible les enjeux c'est pas possible politique du da ngay xëy rek luxus politique doo xëy rek judd politique dafa am processus mënoo xëy rek nekk taxaw xëy rek falu c'est-à-dire mënut a nekk ci àll bi génn réew mi xam nga nuitamment euh, dugg ko ci jet privé mu dem yoonam partem sax xamuñu si lu ne ña ngay tasaaroo ña ngay xuloo ko xeex ñu naan Karim président ci remplacé Macky Sall mais nag président da ngay toog fi nga toog bës ci benn bouton nit falu nga bës nit na lu ñu wax la lu ñu dig Karim la Macky moom xam nga day manœuvrer su bëggee PDS ànd moom pour mu am majorité assemblée mën na toog teg ak ñoom dil mais teg na fi dil noo ko Abdoulaye Wade ñu dem masali ko ñu naan taxaw ñoom ñaan ñëpp bi ñuy ubbi Massalikul Jinaan ba ma daal ci seen kaw taalibe yëpp daal ci sama kaw man laa may leen les deux francs-maçons là qui se serrent la main dans un dans un temple gars yi daal sama kaw boobu ils pas compris je parle en parabole boobu waxuma ne Massalikul Jinaan temple la mais boobu j'ai utilisé l'expression maçonnique pour les deux francs-maçons Abdoulaye Wade ak Macky Sall yu bàyyi ay yu tabax seen jumaa ko inaugurer au nom de leur croyance ñoom les francs dugg ci biir ñoom di ñoom laal Abdoulaye Wade ak Macky Sall laa doon waxal waxuma woon ak waa Murit yeeg ñu masal bi mais ñoom comme dégguñu man damay communiquer informé wu ba lappato yi ñu xam li may wax je parle en parabole ils m'ont pas compris dal sama kaw mais man je suis quelqu'un de stoïque et de costaud saaga dal ke neko wooy da nga tuddee suñu jumaa ji mais seen jumaa seen jumaa ji c'est pas Massalikul Jinaan c'est pas un temple maçonnique mais vous y avez invité deux francs-maçons yu seerante laa mel ne dañoo juboo ana juboo ko fu mujj après Wade jaaga jaaga rek màggataayam bu doy dem dugg ci palais di seeti Macky Sall Macky ne ko daal seet si est-ce seeti na Wade ba sànq gi suba Macky Sall tegul tànkam kër Ablaye Wade ba ñu Ablaye Wade jógee Sénégal dellu Paris ana Macky parce que nax na ko da koy nax Macky du nit lu mu la wax day fen balaa balaa Karim Wade dugg ci pale bi ana Macky dina seeti Ablaye Wade ana juboo ko suñ mënta xaadiri rek Bassirou Mbacké Abdou Khadre keroog ci image bi te masaali ko juraan yéen koy fàttaliku ana juboo ko ana juboo ga ana juboo ga parce que duñ da ngeen di yeewu leen bàyyi nelaw yi seen nelaw yi ñoo métti dañ leen di nax politiciens yi li ngeen def yëpp parce que yéen la lu ne ngeen leen yàq parce que da ngeen a yeewul muusu leen vous ne savez pas lire entre les lignes dañ leen di nax dañ leen di manipuler. ñi ngi négocier nag Mahmoud Saleh dem na Dubaay tase sa ak Karim Wade avant moo di ko wax loolu xam naa ko ñu ngi wax ah Abdoulaye Wade kii Macky Sall ki ñu ngi ñu ngi négocier mais jubóoguñu quatrième élément bi may dolli ci wax yi ma laa mën gën a mënta nekk mooy Karim Wade moom dafa demander ñu réviser son procès Karim Wade ne veut pas d' amnistie parce que amnistie Karim Wade mooy nangu na Karim Wade sàcc nañu cent trente huit milliards waaye def na Sénégalais nañ ko baal ah sàcc ñu cent trente huit ba noppi ne nañ la baal ñu baal la ba noppi nga ñëw ne nañ la fal aywa yan la fal loolu da ak yow fàcc ma 138 milliards ñëw ne naa la jéggal ma jéggal la ba noppi nga ne fal ma ci ma jéggal la 138 milliards def la président ci saase nga kon ne di ma sàcc aywa lii moo yomb lii de la ma laaw gën mooy mor ngay bëgg a wax ne xëy na Karim moom la ñuy préparé pour mu fal loolu nag mën nekk bëgg-bëgg mën naa nekk bëgg-bëgg de xëy na ma laa da bëgg-bëgg ba dégg plan ba dégg waaye plan boobu du sotti ndax Mahmoud Saleh mi ngi wax ak Karim Wade ci turu Macky Sall ñu ngi négocier parce que Macky Sall moo leen bëgg a nax bëgg nax li fi des ci PDS nax leen dugal leen ci mbootaayam bi pour am doole parce que troisième mandat bi lay liggéey moom Macky Sall Macky xeexalul pour kenn du Karim du Idi du kenn boppam lay xeexal su mënta sotti ba mënta sotti boppam mu jéem a dugal Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances bi nga xam ne actuellement compte yi Macky Sall yi nekk offshore Macky Sall compte am ci àdduna bi yëpp te ay milliers de milliards nekk fa Abdoulaye Daouda Diallo moo koy gérer. France 24 Jeune Afrique waxoon naa ko ci live fan yële yéen ñi may suivre reportage yi ñu def ci Adji Sarr génne ko y' a deux semaines trois semaines média français yi xaalis ba ca Adama Gaye wax na fay nañ ci deux milliards cinq waxoon naa leen benn diplomate moo ko fay yéen ñi may suivre ndax yéen a ngi koy fàttaliku yàggul li may wax matugul deux semaines man leen ab diplomate bu nekk étranger moom la ñu woo Marème Faye Sall la ko woo ne ko fayal fay leen boobu. rakku Abdoulaye daw da jallu mis de finance léegi diplomate bobu naka la mané am signature ci compte ban compte lañ ko jox ne ko demal tibb fa 2 milliards 5 fay média français yi c'est un diplomate rakk la ci Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances parce que Abdoulaye Daouda Diallo mom moo yore compte offshore Macky Sall yi compte yi nga xamne Macky da ko am neub ko yene ñu def ko ci turu Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo bobu frère am moom nañu woo Marème Faye Sall la ko woon ne ko demal ca compte ba nga jël fa xaalis nga fay média français yi deux milliards cinq la Adama wax xawma montant bi nag waxtaan wax dëgg montant bi ci Adama Gaye laa ko jëlee moo ne deux milliards cinq la xawma nu montant bi toll waxtaan wax dëgg yàlla waaye am naa ay firnde ne Marème Faye Sall moo woo rakk Abdoulaye Daouda Diallo booba ca étranger ci pays étranger ba mu nekk nekk fa diplomate mu ne ko fayal média xool leen Abdoulaye Daouda Diallo ban rak la am ban frère Abdoulaye Daouda Diallo moo nekk dans la diplomatie xool leen def leen seen enquête man damay communiquer je communique voilà li des c'est à vous de à vous de faire vos enquêtes dem leen ngeen bindu ji c'est trop tard d'ailleurs sax bindu bi c'est trop tard la menace ça y est c'était jusqu'au 27 voilà Adama Gaye journaliste monnaie 2,5 milliards Je n'ai pas les montants Adama Gaye ko wax kon nañu jóg fagaru taxaw travail. yi nekk ci biir administration bi patriotes yi nekk ci biir gendarmerie bi patriotes yi nekk ci biir armée bi patriotes yi nekk dans la diaspora patriotes yi fu ci baykat yi àll fu patriote nekk jóg ngeen taxaw waajal seen bopp préparé dañuy xeex ak ñi de demuñu de bàyyiwuñu sànq rek am na benn ci suñu patriotes yi nekk seen biir ku ma woo ne ma Farba Ngom dafa feebar feebar yi garaaw ba dafa mel ne dafa côté paralyse tànk ndeyjoor beeg yooyu di ma jox ay information ma ne ko wóoru ma nag mais on me l'a informé mais wóoru ma xawma ko jot nag je dois le recouper approfondir ñu ne ma dafa xawa paralyser ni ngi fayu il a beaucoup maigri comme Moussa Cissé Lo bon bref dama koy wax ni rek pour ngeen vérifier c'est à vous de voir j'ai pas dit que dafa am na amul mais on me l'a dit informé ñi may informé patriote yi nekk ci fépp nekk kër kër patriote yi nekk kër plaisir kër plaisir mooy Mermoz moom la ko Marème tudde kër kër Macky Sall Mermoz moom la Marème fay tudde kër plaisir maanaam képp ku bëgg plaisir ba neex moo xam ci lekk la moo xam ci sëy moo xam loo xam foofu fooy kër plaisir Marème Marème ma ko tudde noonu plaisir pendant que yéen Sénégalais yéen a ngi bëgg a dee lekku leen naan leen am leen fu ngeen dëkk lébu yaa ngi dankalikoo suufu Ndakaaru gi gis nga barki démb ñu ne jaay nañu terrain lu tollooguñ ci vingt six milliards ci ay terrain aéroport Yoff dégg ngeen yéen lébu yi yéen a ngi tëdd ñoom ña ngay jaay di encaisse makay ko jaay de suuf si makki ci boppam am ci aéroport bi makay la ko jox kenn du ko joxe amul ku ko mën a joxe ci réew mi ku dul Macky Sall ak jabat ñoom ñaar ñooy signé ku ñu jaay Macky Sall moo ko jaay Macky jaay guñ na ci vingt six milliards yéen lébu yéen a ngi buuxante tok len di buuxante bismillah comme loolu ngeen bëgg bisimilah. ah Farba Ngom été en Gambie hier dafa feebar loolu la ñu wax de ñu ne dafa feebar feebar bu graw il a migré xaw am paralysie ci côté droit bi loxo beeg tank bi patati patata ma ko bon ñom ma ko xawma wóoruma je sais pas donc Farba en Gambie pour le législatif, c'est possible en tout cas on l'a dit vérifier wu ma ko dama ko wax ni rek waruma ko woon wax sax parce que man en général je vérifie j'ai pas dit que am na ou amul dañ ma informé mais je l'ai balancé pour que ngeen vérifier ndax am na ou pas et puis feebar voilà ku ne mën na feebar ñëppay feebar loolu moom xam nga c'est pas voilà je waruma ko fi woon wax sax parce que jotewul ak live dara bon bref

ak ñoom Bassirou Gueye ak ñoom ñëpp ci coup bi lañ bokk leeral point net TFM comme ni ko Moussa waxee euh, ma laa waxee ñoom ñëpp ñu ngi ci complot bi Madiambal Diagne ñoom ñëpp ñu ngi ci complot bi leeral point net ñu ngi ci biir complot bi dañuy fen la wax dañuy fen ñooy nas seeni nas interview Adji Sarr wax li bind lee kër kër Bassirou Gueye mooy chapeauté lépp leeral amul lu muy génne lu Bassirou Gueye xoolul dugal leen lii génne leen lii leeral point net Dame Dieng ak Bassirou Gueye procureur ñoo ànd ñoo bokki mbuus ak mussa Fall le général ñu couvrir ko moom Dame Dieng di ko jox xaalis jox ko terrain ci biir aéroport bi yaay nañu vingt six milliards terrain laal ma ci aéroport bi vingt six milliards Macky Sall jaay na ko Dame Dieng Macky Sall jox na ko terrain deux cent mètres carrés ci biir aéroport bi ni ngi koy tabax Dame Dieng bu leeral point def ko weddi Elimane Lam du yore bien wu Macky Sall yi ak Marième Faye Sall nekk Cheikh Katia ñuy jaay drogue cocaïne yàgg ko wax Elimane Lam jox nañ ko ñaari terrain yu deux cent mètres carrés yoo xam ne ni ngi bi ay immeuble de haut standing mom Eliman Lam nako weddi nako weddi ñoom neen la yeen lebu yi ngeen di buxante yeen ba doole yeen ñi may déglu doomee xaraati ñoo tok ci bop réew mi di ko jaay jël alal réew mi yépp tok fu suuf nekk ñu jël ko tabax ko jël alal réew mi ba nopi nek yeen seen media ak ñoom jambal ma jambal ngay tabax Mamel dem leen Mamel ngeen xol dafa jambal tabax ay milliards la fay tabax Madiambal Diagne yor lam mi ñoom nag nekk ci media yi leen nax di bind di fen ngeen di ko gëm yewu leen jóg fak seen ay yett Cheikh Niass nee na je confirme la main droite de Farba a un problème bon voilà je sais pas Donc ko waxee xëy na am on me l'a dit mes informateurs xawma lu ki nekk ak lu ko jot may wax nag ne may wax ne enquête bi nga xam ne gendarmerie def na ko en interne te général Tine moo ko def avant ñu koy dàq ñu dàq ko ndax enquête boobu jël enquête bi toog Moussa Fall ñëw remplacé ko jël enquête bi ñu téye ko ñu mu génn enquête boobu nañ ko publier na génn nañ ko tasaare enquête bi naw dafa war a génn enquête gendarmerie bi laa dafa war a tas comme ni enquête de police judiciaire bi tasee woon section de recherche enquête préliminaire yi sur affaire Adji Sarr xam nga enquête bi génn ba ñëpp am ko enquête interne gendarmerie dafa war a génn tas dañ ko war a génn nit ñi xam li xew su enquête boobu génne rek coow lu jeex tak lu bari nag génn na ci Mollah Morgun wax na ci lu baree baree bare bari na lu Mollah Morgun wax loo xam ne dafa recoupé wu ak enquête interne gendarmerie boobu moo tax moo Mollah Morgun ci koy informé kooku xam na li xew de ki informé Mollah Morgun xam na bu baax la nekk ci enquête bi lu leer laa leen wax su ma waxantu lu leer laa leen wax enquête gendarmerie bi nañ ko déclassifié génne ko nañ ko fuité mu génn ci média yi publiquement nit ñi liir ko suñu ko enquête bi su génnee Macky Sall day wàcc saase enquête bi suy génn Macky Sall di wàcc amul dem dikk te Macky Sall xam nga moom bu démissionné Moussa Fall ak Antoine Diome ñëpp daal Macky bu démissionné tout ce kuréel état dootu fi amati république bi day wàcc administration bi rek a fi des Macky su démissionné gouvernement bi day démissionné. Moussa Fall ñoom ñëppee wàcc tam enquête bi su génnee Macky day daanu waxuma la kon ay Moussa Fall ki ay George ay ay Antoine ki ay Bassirou Guèye ñooñu waxuma seen i wax ñooñu ñooñu ñoom dama leen a jëlale Macky Sall ci boppam mooy daanu laa su enquête bi génnee. Mm-hmm. am am na ñu bi de enquête bi am na ñu ko am. toog ci ko ba ñu ko liiree dañ doon cëppi cëppi mënuñoo nelaw <laughs> bi enquête ku ko gis ba liir ko doo nelaw waaw enquête bi wop wop wop wop non gendarmerie Sénégal gendarmerie Sénégal ay professionnel lañu billahi Moussa fale rek mooy jatle Moussa Fall mooy wëyu bi doomu Karim Fall AKF Karim Fall nag AKF Ousmane Diagne Baye Dior Diagne jubóowuñu woon ay socialiste lañu woon ca temps Abdou Diouf nag di jàppale Abdou Diouf Abdou Karim Fall AKF transporteur carburant homme d'affaires dëkk ndànd waaye ñu gënoon koo xam Kébémer AKF Abdou Karim Fall baayu Moussa Fall le général bi yéen ñi mbokki Karim Fall Moussa Fall yéen doomi Karim Fall yéen ñi nga xam ne yéen ñenn ñu jub ngeen ñu baax ngeen ñu téye seen bopp ngeen kenn xamul ngeen a ngi liggéey seen liggéey yor seen alalu baay di ko sàmm nekk seen biir kenn xamul leen dara yéen doomi Karim Fall yi yedd leen seen doomu baay Moussa Fall nii yedd leen ko de mi ngi ci mbuxum di rey ay nit bu dëgg bëccëg nekk ci complot guddi ak bëccëg di yàqu deru Karim Fall Abdou Karim Fall yéen doomi Karim Fall jóg leen ci de Moussa Fall ngeen yedd ko mu téye loxoom te bàyyi lim nekk ku ko tëkku wala ku ko waxal dara mu tëkku la wala mu rey la wala mu jël justice bi wala armée bi wala gendarmerie bi bëgg ko dóor ci sa kaw ci lu dëgg du yoon moom Moussa Fall loolu Karim Fall bàyyam jàngalu ko Karim bi lu woon noonu Moussa rek aduna jaral na ko lu ne mën naa colonel Ndaw ko wax pour l'honneur de la gendarmerie dem leen ngeen lire ko le colonel Ndaw pour l'honneur Abdul Aziz Ndaw bind na livre bu ñu tuddee pour l'honneur de la gendarmerie nee na Moussa Fall est prêt à tuer pour ses propres intérêts et pour le général à l'époque général bi fi nekkoon moom Moussa Fall bi baayam Karim Fall Abdou Karim Fall ak Ousmane Diagne ay socialiste lañu won di am ay marché di gagner ay marché bari Abdou Karim Fall nekkon ko xamne Serigne Abdou Lahad Mbacke Wah, ngembon wa waaw Serigne Abdou Lahad Mbacké ko ngembon Abdou Diouf diko dimbali ci lu bari mu nekk socialiste ni Abdou Lahad Mbacke diko jappalé ci Abdou Diouf moom Abdou Karim Fall sëriñ Ousmane Diagne bàyyi joo Diagne ba mu demee ba xam loolu mu dugg ci xaadar yeey waa xaadar yi ngemb ko moom ci Abdou Diouf kenn ku ne ngay mooy li may wax rek mafia politico maraboutique réew mi mënu leen a muusa ko ba bu ñu koy tabax bëgg a sikk politiciens yi ko dugal si parce que lu fi waaye yàq ci réew mi loxo sëriñ ma nga ca ci njalbeen bu ki nekkul ci njalbeen bu demee ba war a yàq bañ war a jàpp sàcc bi doo koy jàpp ci kër sëriñ bi nga koy jàpp ndax fa lay du ma weddi Abdoulaye Sylla bu ànd ak Marème Faye Sall bi Marème soog a falu marché état bi yëpp moom lañ ko jox multimilliardaire Abdoulaye Sylla il est de Diourbel jàng ndoog Marème doon jaay ay garab ak yu kenn xamul daf yëngal Marème falu def ko chef d' entreprise weer ay milliards jox ko marché yëpp ci turu Marème waaye moom mooy encaissé bu encaissé jox Marème Marème moom moom société Ecotra mais Abdoulaye Sylla moo moom moo moom mais Marème a ko moom di woote ñu koy jox ay marché Ecotra ay milliards et milliards ba mu demee ba nekk ay trois cent quatre cent cinq cent milliards ñu dugal ko ci ay banque offshore Mariam bëgg koo nangu Ablaye Sylla taxaw lànk na amul lu ma ne franc Mali mooy lan soixante quatorze milliards Idrissa Seck yaag Ablaye Wade ya jox ma sama xaalis jox ma la sama xaalis dama lay dugal ko sàcc jaarale ko ci Idrissa ko ci sàcc bi sàcc bi di jiñ sàcc bi sàcc sàcc bi ne ko yow mën a maa jiñ sàcc ndax sàcc bu sàcc leen fekk du loolu sàcc bu sàcc sàcc la ñaari sàcc yu sàccante ndax alalu Sénégal ñu nax sénégalais yi ci sàncre Thiès ba sànq ci suba ak i protocole loolu moo doon Marème Faye Sall ak Abdoulaye Sylla ci ay marché yu ñu ko doon jox ci état bi te du ko liggéey wala bu ko liggéey du baax ñu encaissé ko Amadou Ba di fay mu nekk ay milliards Marème Faye Sall di ci politique ak di ko def ci ay compte offshore mu dem a dem ba wóolatul Abdoulaye Sylla gis na kii am na doole ñu bëgg ko nangu Abdoulaye Sylla baraake wu lànk doo dégg ñu ngi koy jéem a rey nag a na kër Houston na nga fay làqatu daw Touba dem ci waa kër sëñ Fallou yi ne leen waaw dégg naa da ngeen a bëgg a defar xabru sëñ Fallou bi patati patata ñoo ne na ko waaw mu yëkkati deux milliards dugal ko ci biir xabru sëñ Fallou ba ñu defar xabru sëñ Fallou ba ba xabru ba di di di tàkk maintenant or lustre ya fa nekk yëpp Abdoulaye Sylla moo ko fa def pour lan que boo liggéey su Macky Sall ñëwee bëri dal ci kawam waa kër sëñ Fallou yi ngemb ko murit jóg mu nekk bouclier voilà le Sénégal lii ko réew mi nii lay doxee su ma waxee ngeen saaga ma ndey loolu moo am fépp di Abdou Lahad moo doon jàppale Abdou Karim Fall bàyyi Fall mi général xaadir chefu xaadir bi di jàppale bàyyi Dior Diagne Ousmane Diagne ñu ngemb Abdou Diouf ñoom ñaar ñoo ñee seeni doom tey ñoo daje doomi Abdou Karim Fall Moussa ak doomi Ousmane Diagne Dior Diagne tey ñooy daje ci kër joor Diagne di fa teg ay dil ak mus ki nga xam ne mooy Antoine Diome nga xam ne moom doomu baadoo la ñii ci alal lañ judd moom mu judd ci ndóol amul woon fu mu dëkk bi mu jàng dañ koo abaloon kër Ndakaar mbàkk yu mi ni jaayam moo jëloon këram ci Grand Dakar abal ko ñuy xos moom ma nga ma nga dëkk xombal amul dara moom Antoine Diop moo tax mu am complexe Dior Diagne topp ci ginnaaw Dior Diagne sëy di yagar yagar ñu teg dil di ko teg ci kawam en tant que ministre de l'intérieur mu xam ne c'est une mission régalienne l'intérieur du pays jigéen di la manipuler Dior Diagne nga jël les renseignements di jël de l'État ko utiliser contre un opposant topp Dior Diagne jigéen moo lay dugal ci pax moo xam ne yow Antoine Diome di nga xam ne lépp dëgg la nañ dem ba ci kanam sam te nijaay am nga nijaay ci réew mi nag te réew mi ku fi am nijaay war nga war a juum Karim boo am nga fi nijaay mooy mbàkk yu fay mbàkk yu fay ko yedda sa jarbaat bi ko mi koy dugal ci pax xam ne dina xam ne lépp dëgg la yaa kenn soxalu la làmmiñ Ousmane Sonko seet si la biir masali ku ñu naan nga seede ci Ousmane Sonko loo xam ne ñëpp dégg nañ ko ci njub yaa ko wax de yow mbàkk yu yow Mbackiou fay mi wax loolu demal nga yedd Antoine Diome sa jarbaat bi bëgg a faagaagal ci nga seedeel na ku jubla muy Ousmane ko te kenn du dugalu ko ci kudul kudul Dior Diagne ndax bëgg falu place Marème Faye Sall boobu Marème nekk première dame moom la Dior jaan bëgg ma laa mor dana ko wax du samay wax est-ce que wax ji leer na li may wax est leer na bu leeru ngeen wax ma ko ma bamtuwaat doomi ñi fi nekkoon démb doomu Abdou Karim fal ci nguurug Abdou Diouf ak doomu Ousmane Diagne ci nguurug Abdou Diouf muy Dior Diagne seen doom yooyu ñoo nekkaat tey ci réew mi fii di pousse seen i pion muy dox ci suñu kaw ñun ba bu ñu ko waxee ñu xooqatal ñu ne kenn ko wax di comp di complot état di def lu ne pour lan pour bëgg a toog fi ñu toog ci seen ay avantages seen ay privilège ci li ñëpp bokk ñu bokk ko aakimoo ànd kook ay kaw kaw ay doom yu baadoolo yu mel ne Macky Sall ki Marème Faye Sall ki ñoo xam ne. ay Antoine Diome ñoo xam ne démb seen bàyyi ay gardien nañu ak jaay ko di gerte caaf ñoom ñoo tey nax sénégalais ba toog ci ko réew mi ànd ak doomi ñenn ñi fi nekkoon démb ñu toog muy dox ñii waruñoo fanaan ci réew mi tey ñii ñi may ñi may li may lim ñii waruñu fee fanaan bu ñëw fanaan ci réew mi mais réew mi tamit ay lappatoo fi nekk ay taalibe yu gëm sëriñ mais bu fa ay patriote comme ay malien nekkoon Macky Sall ak ñi ma kenn du fanaan ci réew mi tey kenn du fanaan mais comme réew mi ay lappatoo ak ay taalibe fi nekk ay ñoo xam ne yàlla baax nag yàlla moo leen xeexal xeer ngeen taxaw lànk yàlla du ñëw parce que dañoo lànk na duñu xeex comme ni ko malien yi defee ak Assimi Goïta loolu mooy suñu problème Moustapha Cissé Lo nak ay doomam bëggu nañoo gën tay wax conférence de presse wax liñ ko def yépp palais bi wo Serigne Moussa Nawel Mbacke ne ko na ci wax mu wo ñu doomi Moustapha Cissé Lo moy seen serigne ñu tégaat lépp ci suuf lapato daayira waaw serigne bi moy dogal du serigne bi wax non la serigne bee la yóbbu àjjana sëriñ bi mom ngay top comme nak rey nañu seen bàyyi posé nako bëgg ko ray ngeen genn bëgg a fippu sëriñ bi ne leen bëgg fu kenn fippu daayira bi daayre daayre waaw la kuy dee doo wéqu bu fi kenn wax ndax palais dee ko câble moom Moussa Nawel moo xam lu mu seq ak lu ko Macky jox seen bàyyi buy dee yoonam newut toppatawul Cissolo buy dund ak buy dee yéen doomi yéen doomi yi Moussa Nawel i baat ci waawam a nangoot jël buum takk seen topp ci moom Moussa Nawel muy teg dil ak Macky Sall teg ko ci seen kaw baay si seen wopp baay seen baay ngeen nangu ko sama yoon néew ci bu ngeen dee ñu suuli leen man kenn du ma yulif parce que ba bëgg ci rey sama baay waaye comme seen baay moo nangoon ak sëriñ yéen tamit ñu yar leen ci ak sëriñ sëriñ boobu moo leen rey Macky bi rendi seen baatu baay Macky Sall bi ko rendi sëñ Moustapha na sëñ Moussa Naawel Mbàkke moo koy ñàddil baat bi bu ngeen bëggee fépp ne suñu baay kenn du ko rey sëñ Moussa Naawel ne leen eh ah du ngeen ay taalibe ne ko ah kañ Mbàkke mu leen na toog ne leen patt coono jeex tàkk loolu ngeen bëgg loolu ngeen mérité c'est très bien fait pour vous parce que du ngeen ay nit ay làppato ngeen duñ ci rey sa baay man sama yónneeku du ma leen mënu ma leen a bëgg seen bàyyi Moustapha Cissé Lo bu ko rendee bu dee sama yónneeku ci ndax moom ci boppam moo njëkk joxe boppam ne taalibe la kon bu ko sëriñ bi tër di rendi sama yónneeku ci loolu man du sama priorité ma leen koy wax pour ngeen xam rek. na dee sama yoon newu ci joxe sa bopp non taalibe la diw sama serigne diw bi nga xamne mom nga yaakaar ndegam ci aduna bi bu la Macky Sall di rendi diw bi day sotle day and ak Macky Sall ko xam nga ne moom nga yaakaar ëllëg alakhirah yéen a tiaxan a Macky Sall ngi ray seen bàyyi fi serigne bi ngeen yaakaar mom ne leen nopi leen bu ci kenn wax bàyyi ko mu ray ko ngeen serigne bobu ngeen yaakaar yow ma xiyaam mu intercédé ci kanam yalla pour ngeen dugg aljana yéen a nax seen bop da ngeen a jaaxante saw waaye gisagu leen dara ni font rek di ngeen nek di par force wala ngeen xam nu ngeen def kon lii mooy li nga xam ne moom laa bëggoon a indi dolli ko ci waxi Mollah Morgan yi di féliciter Mollah Morgan di ko encourager di ko franchement di wax ne chapeau chapeau courage bi mu am intelligence bi mu am ak clairvoyance bi ak ni mu ko faram fàcce yépp nga xam ne 90% ci li mu wax yépp kenn du ko weddi xëy na am na ay 10% ay erreurs yoo xam ne mën nañ ko corriger indi ko suñu xalaat li ma ci xam man indi naa ko après j'ai pas tout bon dafa gudd dafa bari li mu ci wax euh, bari na am na leneen lu ci def loo xam ne aussi erreur la mooy le fait que mu disculper ñenn ñi ne ñii bokkuñu ci ñii kër loolu c' est pas son rôle Mollah Morgun n' est pas un juge buy taxaw naan diw te mi ngi ci woon ci biir bi waaye bokku ci donc c' est pas à lui d' apprécier na wax ñi ci nekk mais ñi ci bokkul du moom moo koy wax parce que gis nit mu nekk ci biir dil boucher boobu muy wax ak ndaw soosu nga xam ne mooy ponkal mi yor salon bi ca salon bi ca rëbës ak boucher ba mu àndaloon ak chauffeur bi muy wax ak yooyu yëpp mun na ñooñu bokkuñu ci kooku moo laa ma gën da nga xamul droit mais soo xamee droit doo leen discuter ñooñu ay ñooñu dañ leen juger en complicité chauffeur beeg ñëpp ci lañ bokk bul na bul yow waxal rek mais bul na ku ci bokk ku ci bokkul loolu ne diw bokk na ci diw bokku ci kooku juge moo koy wax mais ñoom ñëpp ils sont dans le coup ñu def enquête dañuy ñu laal ci enquête bi ñëpp dañ leen war a entendre chauffeur bi dañ ko war a entendre boucher bi dañ ko war a entendre ndaw sa nekkoon ci bi salon bi dañ ko war a entendre ñoom ñëpp dañ leen entendre ils sont impliqués dans le dossier donc du yow ma laa yaa leen ni disculpé wala nga leen ni accuser yow waxal rek waaye bul na kii bokk na ci kii bokku ci madame Tall maa ngi gis nga di ko ci génne bu ci génne madame Tall madame Tall est dans le dossier parce que jour bi Adji di dem ci palais bi ci mag ci madame Tall la waroon a départ pour dem seeti Macky Sall madame Tall am na lu mu wax madame Tall dañ ko war a dafa war a dañ ko war a entendre mais bul na kii bokk na ci kii bokku ci loolu bu ko wax ma laa loolu erreur loolu après enquête lañuy xam ku ci bokku ku ci bokul mais du yow du man madame Tal ñu ngi ci dossier bi elle est impliquée ñi nga tudd ñëpp dañu impliqué ci dossier bi le dossier est en instruction du mala moy wax ku ci bokku ku ci bokul lolou mala dafa outrepasser ses prérogatives na informé mais bu mu wax ki bokku na ci kii bokku ci lolou dama ko koy baaxee kon nañu préparé wu takku tous les patriotes fas yéene xeex ak ñoom parce que léegi li ñu bëgg mooy yàq dossier bi il veut créer une situation de cacophonie dañu bëgg a créer situation boo xam ne réew mi day jaxasoo coow li bari ba dossier bi kenn du ko atté parce que Sidi Ahmed Mbaye bu dawee tamit moom il est au cœur du truc moom il faut mu ñëw il faut mu ñëw témoigner Mathiam dégg naa daw na ak fa famille bi dem nañu pari kee nga États-Unis ñoom ñëpp ñu ngi jéem a daw Adji Sarr ñu ngi ko doon jéem a dawal mais bi ci Ousmane Sonko waxee lañ ko tegaat ci suuf dégg nga pour génne ko réew mi yëpp mais jëru ñuy daw daañu jéem a nag titiyee Ousmane Sonko jéem ko provoqué fii këri këri pour indi coow ci réew mi parce que loolu lañ bëgg fi mu toll nii réew mi tàkk lañ bëgg ñoom fi mu toll nii mooy mois de moom ñoom dañoo bëgg réew mi tàkk fi ci biir mois de mars bi parce que parallèlement ak li ñuy wax yëpp ñoom dañoo am aussi logique bu mystique loo xam dañ ciy dox ce sont des féticheurs mois de mars bi seen mois la sur le plan xam nga de la mystique mais dans le mauvais sens du terme dafa am agenda yo xam ci mois de mars bi lañ koy déroulé motax tax coûte que coûte mois de mars bi ñu bëgg def le tout pour yëngalat dëkk bi dëkk bi dañ bëgg mu yëngu parce que bu yëngoo dañ naan sëñ Muntaxa nga fi sëñ Moussa Naawel a ngi fi ñom ñoy woté wat talibé yi ngeen wat parce que ñom motax tax ñuy def li ñuy def dañ ñooy yàpp parce que tant que sëñ Muntaxa ngi woté ki Moussa Naawel nek ci suuf tant que loolu mi ngi am Macky Sall du bayyi mukk du respecté Sénégalais duñ jox cër mukk Ousmane Sonko daañu ko jëma ciokkasat cokkaasaat dañ ko jëma ciokkas jëm jéem ko yëngal madame ba boobu muy wax ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñoom ñëpp dinañ ñëw ñoom ñëpp dinañ témoigner ku génn bitim réew daañu la jël amul dem dikk parce que lu tax dossier bi dafa compliqué dafa am ay meurtre dafa am ay homicide dafa am ñu ci dee fu waay nekk ci adduna bi da nga génn on va faire des mandats d'arrêt internationaux on va te chercher partout di nga ñëw témoigner sa responsabilité dinañ ko situer bu ki daan waree am daañu la teg ay daan amul dem dikk.

ayam gi bu ko xajamal de ci ay politiciens ki Macky Sall bu ko xajamal de te ni ngi bëgg yaq nak ayam gi ni ngi koy bëgg xajamal ci deglu ay Serigne Moussa Naawel ak yu kenn xam ñu dugg ci palais bi tek seen dil ñew di duggal ci lo xamne da yaq ak ayam ayam gi dañ ko yaq dañ koy ñaan de ko forcé wuñ ko dañ koy ñaan ci ñek na bayyi xelam bu baax ci limi def te baña tabbi ci lo xamne luy lor askan wi lay doon te ña koy def nekk ñu nekk ci bopp réew mi bu ñu ko defee ba noppi nag ñëw di ko ci jéem a dugal di ko ci ñaan ndimbal def na ko benn yoon bu mu ko def ñaar yoon de comme moom bu jàmm di am suy wax kenn du ko déglu la ñu wax bu wax ak Macky Sall ci jàmm Macky du ko déglu waaye bu demee ba jàmm ji jóge fii ba Macky nar a daanu ñu woo ko loolu Mbàkke bu ko def ñaari yoon de def nga ko benn yoon ñu jox la lépp waaye boo ko defaatee ñaari yoon sa ay dana yàqu loolu leer laa lay wax nag waxante wu ma de bu ñu jàmmaarloo waateeg Macky Sall Sëriñ Muntaxa Mbàkke da nga yéey ci yàbbi sa ay dafa lay doxee yàqu ba faw te yéenewuñ la ko dégg naa mu laa euh, laamar gën di wax boo naan naan buugaan boo ko ci dil bi buugaan kenn newul na ci dil bi la bokk loolu tamit wax nga ko mais loolu erreur la ci mu laamar gën mooy li may wax rek mu laa waroo wax ne kii ci dil bi la book ki boo ko ci dil bi wala kii non wax rek bugaan man taxaw naa ne buugaan seeti na aji saar mais néew ma ne buugaan ci dil bi la bokk dama ne buugaan seeti na aji saar ba may ko xaalis ne ko bul teggi sa tànk pour dama ba mu sës ñoo ngi sa ginnaaw Bougane dem na seeti Adji Sarr ba may ko xaalis di ko encouragé ci tuuma gim tuuma Ousmane Sonko ne ko bu ki dellu ginnaaw loolu laa wax man avant ngay génn wax naa loolu sama live tekki na Aly Ngouille Ndiaye seeti na Adji encouragé ko may ko xaalis loolu laa wax waaw ah, mais yow boo taxawee ne Bougane boo ko ci bi loolu enquête moo koy wane te duñu wax lépp am na lu ñu xam moo tax tur yëpp génnul dafa am lu génn am lu ñu téye moo tax lu gaaw a wax Mollah naan diw bokk na ci diw bokku ci bu gaa wax waxal li nga xam rek mais bu ci seppi kenn parce que da nga am crédibilité nit ñi di la déglu te crédibilité boobu c'est important da nga ko war a sàmm loolu c'est un conseil Lila que amoon loo xam ne indi ci li nga la fi gën indi barki démb te lu ci baree baree bare bari comme information mais lu ci bari mi ngi enquête interne de la gendarmerie sur le complot Adji enquête boobu am nañu ko am ci lu bari ñi ngi ñi nga ne ba xam ne na na ci kenn génn weddi ko Amadou Ba nag mi ngi jéem a woo Mollah di ko jéem a corrompre di ko dig di ko dig ay centaine de millions Mollah faale wu ko jëlu ko sa téléphone voilà bu leer seen bopp yi Mollah du ko ñuy corrompre xam ñu ngeen mën am na wax na ko nee na Abdoulaye Wade fi taxawoon na Sénégal Sénégal boo gis am na njëg wax dëgg de quatre vingt dix neuf pour cent sénégalais yi dañoo am njëg te xare leen gën a cher xar man nag bokkuma ci man kenn mënu maa jënd Mollah it nee na bokku ci kenn mënu ko jënd voilà kuñ mën a jënd nag nous ñun ñëpp féliciter encourager reconnaître sa clairvoyance son patriotisme son courage mais sa méthodologie parce que il dit les choses comme ñu nuñ mais d'une manière humoristique dafa am humour avec un peu de théâtre c'est bien c'est une façon de voilà les gens il y na ñoo euh, ils comprennent en se marrant di rigoler après loolu amna ñum ñu pousse ñenn ñu ne ma oui mais il n'est pas sérieux Mollah oui parce qu'il est comique man len ah bon côté bobu da ngeen ciy c'est une façon de parler il a de l'humour yenn a ni mu koy expliquer ba ñu met say mu xoolee Adji Sarr ne te oh, putain la kër moi je ne peux pas dire ça mais bon ça le dérange pas mais euh, critique wu ma ko ci c'est sa façon de faire amna ñoo xam dañuy comprendre ci xàqataayu kër ci lañuy comprendre amna ñoo xam ci série lañuy comprendre amna ñoo xam kenn ku nekk ni ngay comprendre kon mom lolu moy méthode méthode bu man amu méthode bu am humour buy lo nit ñi pour nit ñi comprendre li ngay expliquer c'est une très bonne méthode

Voilà, c'est aussi un artiste, effectivement. Il a ce côté artiste, ce côté humour que, que moi, j'ai pas. Moi, je suis pas artiste, effectivement. Et ça, c'est moi qui n'y m'y am na ñoo xam ne ci ni mu koy comprendre les deal bi ils sont ils n'ont pas d'humour ils ont bu moo laa di wax dañu jàpp ne des day cinéma quoi ñoom ñoom duñu gëm mais c'est comme ça ni ku nekk ak ni voilà ni ñi dañuy bari te wuute c'est comme ça mais moi je sais que li mu wax l'humour, vingt le pour la huit pour cent yi def ci juum am na deux pour cent yoo xam ne erreur la waru ko def c'est son c'est son appréciation personnelle moom te loolu waru ko def mooy ki bokk na ci bokku ci ak Macky Sall mi ngi woon Radisson te nekk woon son mi ngi woon Popenguine ak yenn yenn yenn yooyu wax naa ko sànq donc du ma ci dellu si mais l'essentiel mooy li ëpp solo ci li mu wax te mooy loo xam ne kenn mënu ko dindi ñoom ñi mu koy waxal kenn mënuñu au contraire dañ koy jéem a woo di ko jéem a baax pour mu noppi. bu ñu koy weddi documents yi di génne wala audio yi sans compter nag ay audio yi war a génn yeneen am na ay yeneen audio yoo xam ne ay waxi Adji Sarr la ay audio yu taxawal yoo xam ne Adji Sarr ci wax lu leer Adji Sarr ci boppam moom moo kalaate dil bi aji Sarr dafa nax dafa dafa fen waa salon de beauté fen Macky Sall Adji moom dafa xam nga dafa am complot ci biir complot ñoom dañoo jël Adji Sarr bëgg ko complot contre Sonko Adji Sarr ànd ak ñoom ci complot contre Sonko ba noppi ñoom Adji Sarr comploté leen Macky Sall ak ñi mu àndal ak da leen teg complot ay complot yu bari la dañ doon jël agisar teg tëgg ko ci seen complot contre Sonko Adji Sarr tëgg leen complot ci biir complot bi enregistré leen ñoom ci ci bari ñu doon wax ak Adji Sarr li ñu doon wax ak Adji Sarr Adji daf ko doon enregistré audio yooyu yëpp am nañ ko compilé nañ ko ba ñu ngi ko jënd ci à des sur le moment venu dina génn ñëpp dégg ko moo tax duñu def procès dañuy caaxaan ni rek ay woo Ousmane Sonko ay dañ koy entendre rek ay Sidi Ahmed Mbaye jaar rek dañuy cinéma di tappale dañuy tappale jóg leen ngeen bindu ji dem vote parce que problème bi lool la Macky Sall bu élection amoon du du génn deuxième tour moom Macky Sall dañ koy éliminer d'office il est impopulaire réew mi ñëpp ko ba ndax dossier bi loolu mooy problème lay taxawaatee ba mën a wax ay troisième mandat ku mu fi bàyyi problème yooyu la am sàcc élection yi lañ bëgg na ñëpp mobiliser wu dem vote ji lii ñuy wax yépp dañuy dilatoire rek di ñu nax ay tappalekat lañ jàpp nañ leen la main dans le sac on a toutes les preuves ki seen complot bi dañuy fen an Adji Sarr am na lii yëg Ousmane Sonko am nañu ay film nak ay audio dañuy fenn amuñu dara Ousmane Sonko man maa leen wax loolu suñ ko gir génne ko amuñu dara au contraire ñu ñoo am lépp toog ci di leen xaar leen benn paax benn paax fu ñu teg tànk fu ñu tànk li ñu bëgg nag mooy nax ñu ñu génn suñu lépp teg ci ko taabal ji ñu xam suñu lépp nag dem toog tëggaat seeni mbir ba nga xam ne jubbanti ko ba nga xam ne bu ñu ko tëggaatee ci ko taabal ji ay tappalakat am leen lu ñu leen opposé moo tax li ñu génnee gun ci li ñu xam ci dossier bi 5 pour cent moo génn 95 pour cent yi ni toog gëm leen bu baax li ma leen wax parce que ay njaacaar dañu ko déggal ay wuyu ak i bandi ñoo nekk ci bopp réew a toog ànd ak ñenn ci ay sëriñ loolu day jeex jeex na ba pare man ma leen ko wax. appel ci kaw la ak appel ci suuf comme ni ko Mbaye Dosé waxee woon ci film rek mu ne ko lan mu ne ko appel ci kaw appel ci suuf eh loolu mooy loolu appel ci kaw appel ci suuf mooy dil bi ñoom dañ doon appel ci kaw ak a Sarr pour dal ci kaw Ousmane Sonko Adji Sarr def appel suuf appel ci suuf teg leen dëgg sa dox ñoom it di leen enregistré fen leen. wax leen am naa lii mën naa lii kër kër bi bi ko capitaine Touré njëkkee déglu daf ko ne yow am say preuve sama téléphone dafa yàqu oo oh, ma lii o bi ñu ma yónnee woon bi ma yónnee benn preuve Adji Sarr mënu koo génn jox ko enquête bi jox ko capitaine Touré capitaine Touré amul benn preuve ci li Adji di wax benn dara. Dior Diagne woo ko yóbbu ko këram keroog ma laa di wax ci live bi démb naan Dior Diagne ba après ba mu jógee foofu bañ déposé plainte dañoo dem kër Dior Diagne <laughs> dañoo dem kër Dior yi mu saaga Adji Sarr da koo daggal xam nga joor joor jaajo daa ko saaga kaa leen ñu saaga moom bu mere day saaga ndey ndax aji saag da koo dugal ci biir këppatal gi ndeke aji amul dara saagi da koo waxoon na ko am naa lépp prévieux yëpp bañ demee nag ba déposé plainte bi ba ñu bis nag lañ gis na aji amul dara joor jaañ daggal ko yi saaga ndey ba may ko xaalis kare bi ñuy génn këram ak Antoine Diome lépp kenn mënu ko wax kon ñu ngi leen nuyu leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di wax ne loolu lañ bëggoon dans un premier temps indi ko ci njàngat bi nga xam na am nañ ko ci waxi Mollah Morgun gën gi di wax nag ne léegi pale bi Touba moom ci sëñ Moussa Nawel la ñuy jaar jaaratuñu ci Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte parole bi dañ ko vérifié parce que dañoo xul ak moom dafa teg ak ñoom ay dil ci yu bare ci ay affaire suuf moom bas porte parole Macky daf ko mere pale bi dañoo xuloo moom am na ay dossier yoo xam ne sax ñu ngi koy waaj a génne moom Bass Mbacké Abdou Khadre mais dañoo xam ne bu ñu ko génnee taalibe yi duñ ko gëm dañuy dal ci ko état Macky Sall moo tax Bass xam na loolu moo tax lu ko neex lay def gars dañ ko jàpp la mais dans le sac porte parole bi Macky daf ko isolé daf ko mere amatul entrée palais maf dil yi mi teg ñoom mafia yi ci affaire suuf ci affaire xaalis ci affaire business ñoom dañu dem ba dañu maar ci moom am na compte bancaire bu mu am société générale état bi daf ci def ATD avis à tiers détenteur état dafa vérifier compte bi Macky Sall moo vérifier compte Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké porte parole du xalif du xalif général des Mourides Macky Sall moo benn compte bu nekk société générale waxantuwuma nag Macky Sall mi ngi def le tout pour vérifier deuxième compte am bi nekk Crédit Lyonnais banque Crédit Lyonnais bi nekk watu marché Kermel Bassirou Mbacké porte parole Abdou am na fa compte mais état ni koy jéem a verrouiller pour tëj compte bi téye compte bi mais mënu ko pourquoi parce que Crédit Lyonnais filiale banque Crédit Lyonnais bu France la donc dafa nekk une banque boo xam ne législation bi dafa soumettre ci législation française moo tax état Sénégal mën agu cee teg loxoom pour compte Bassirou Mbacké Abdou Khadre ci ay mbuxum yu garaaw a garaaw a leen wax nag scoop laa leen jox porte parole xalif général des Mourides Bassirou Mbacké Abdou tëj na benn ci ñaari comptam yi benn bi nekk Société Générale ràpp la ko Macky Sall def téye ko def deuxième comptam bi nga xam ne ni ngi Crédit Lyonnais te watu marché Kermel banque boobu banque française la moo tax mënaguñoo tëj compte ba fa nekk ay milliards fa nekk moom ba Mbacké Abdou Khadre la mafia politico-maraboutique foofu lay daanale léegi des nag du ma leen ko wax ba ci kanam jox ndaje nañ leen dem ubbi leen seen noppi rek soob yàlla nekk nit làpp tey taalibe xam ni ngeen ko seqal doomi Serigne Touba du Serigne Touba surtout Serigne Touba du Serigne Touba ngeen xam ne doomu Alaaji Malik du Alaaji Malik surtout Serigne Alaaji Malik du Alaaji Malik seen xelu làppato yooyu ngeen yor yaakaar ne ku baax ku baax lay ku baax bu juree lu baax lu baax la lu baax lay jur lu baax loolee jur lu baax lu baax loolee tamit dafa a jur loolu ngeen yaakaar ne noonu laa dobi doxee loolu yu fi làppato la amul bu fekkee ne loolu kenn ku nekk sa doom ngay jur kon adduna bi neex ne woon ku baax lu baax rek ngay am kon adduna bi kon dof yi kon ñu bon ñu ñu bon rek baax ñu ñu baax dong la ñu jur sëriñ sëriñ la ñuy jur làpp day jur làpp to taalibe jur laale ba kenn ku nekk jur ba loolu yëfi dof la yeewu leen nekk ay nit daañ ci dikkaat dañ leen dem seen tànk suñu tànk day leen déglu rek bu ñu woote rek ñëw leen te partagé rek soo yàlla ñëpp daa ngi nekk nit ñu yeew te fi ñu toog la ñu toog def ñëpp ay nit naxaate gi day dakk réew mi il faut que ñu jublu ci liggéey réew mi nit ñi mën a dund nit ñëpp nag amul murit gi xaadire ki tijaan ki laayam su ñeen nekkul nit ñi lañ bëgg ñu dund moom moom la ñuy xeex toppatoo wuñu ay ku sant Mbàkke ku sant si ak ku sant Laaye ku sant Ba ci ñoom newu ci ay nit ñoo fi nekk ñoom la fi yàlla wàcce dañoo war a dund ci réew mi alal du jeex ci réew mi dañ ko aakimoo toog ca kaw di ko noose sëriñ seeg politiciens yi di ndax nit ñi loolu la xeex soo koy waxee ñu naan wuy bul yàq projet bi rek ay gis naa benn waay bu xam nan top sa top la j'allais même pas en parler mais top sa dir top soo ma woowatee wala nga jël ma messenger di wax ak man naan wax lu bon yow top sa dir top xaw ma Pastef nga bokk xaw ma foo bokk ma sa morom nga may jël messenger privé c'est la première fois xawma la gis naa ngay posté nga am oui, bayal di daw ci ko sëriñ si ndax da ngay yàq projet bi parce que lan patati patata ay pro président wax na li ko ma ne ko man j'ai pas d'ordre à recevoir de Ousmane Sonko encore moins de toi El Malick Ndiaye nag moo la yónni bu Pastef pour nga dal ci sama kaw woo ma ci messenger di ma wax j'ai tous les échanges avec toi nga am le projet xaw ma lan kërë kërë may la c'est quoi le projet li may def man c'est pas le projet d'accord yaa ko wax messenger yaa ma woo jël ma messenger si ce que je fais c'est pas le projet ma laaj la la man c'est quoi le projet munoo tu étais incapable de me dire c'est quoi le projet naan ma su fekkee xamoo luy projet kon c'est pas la peine may wax ak yow coupé ma bloqué ma top cest dire top je te connais pas yaa ma contacté di ma jéem a jox ay ordre man j'ai pas d'ordre à recevoir toi je te connais nii de daam nii de dee du ma sam morom ngay wax ay waxi projet yow projet bi tu n'es pas capable de me l'expliquer le projet maa la ko gën a xam fuuf ba may xam projet boobu judduwoo est-ce que tu as compris Stop, Babacar stop na mujj tey nga may jël messenger di wax ak man du ma sam morom nga may wax ay projet ki waane nek kañ nga ñëw Pastef yow ci ci Pastef dans cas nee nga journaliste nga yaa ngi Pastef gis na la ngay bind ne oui da nga déposer pour am carte de presse gaay yi bañ mais gaay yi ñoo bañ du la jox carte de presse le CORED a raison correct mo bañ du la jox carte de presse parce que da ngay politique soy politique da nga koy assumer mëno né yow patriote nga dima wax ay waxi projet man projet Ousmane Sonko nga diko défendre ba paré bëgg ñu jox la carte de presse c'est pas logique da ngay nek presse wala nga nek ak Ousmane Sonko mais mëno nek fi nek fekk parce que noonu ngeen mel yow ak l'ancien directeur de publication bu leeral bi génn di waxtaan yi naan procureur mooy na ko bul teg lii ak Dame ak El Malik, yéen ñëpp vous êtes de Thiès ay chasseur de prime ngeen Ousmane Sonko na moytu bu baax top cest top. dire topp na ko moytu c'est un chasseur de prime mas na dal ci kaw Ousmane Sonko yàq ko lu ne ne Ousmane Sonko est un homme arrogant Ousmane Sonko attaqué Ousmane Sonko waaye ba ba ko Ousmane Sonko recevoir ba ubbi ko bunt yi ba gentil ci moom ci lay soog a ànd ak Ousmane Sonko Non, la ñuy def bu ñu bëggee ànd ak yow dañ lay attaqué dal ci sa kaw en tant que journaliste pour chantage la nga wacc ñu ñëw and ak yow léegi léegi naan dañuy jaay projet yow bi may xam projet bi du topp projet bi booba yow yaa ngi dal ci kaw Ousmane Sonko léegi nga am bunt ñu jox la ay jot na média xawma ces médias la nga xam ne je suis en live là actuellement je suis à combien là je suis à 1300 j'étais à 1500 yow yow ça ça dure top les gens t'écoutent pas tu ne peux pas sa média jot naa média boobu mënoo faa indi 300 personnes yu lay déglu sooy live nga di ma titillé di ma fonto du ma sa morom nga may wax ay waxi projet ay ne tue pas les marabouts comme ngeen xamuñ man sama projet man dama ci génne marab le projet que j'ai su fekkante né projet Ousmane Sonko marabout yi ñu ci sama projet mo riche bu Ousmane Sonko man sama projet c'est le Sénégal pour les Sénégalais xaw ci marabou ku dul marabout deug rek ak intérêt sénégalais lay top ngamay wax ay waxi projet may man je ne suis pas de passif passif. ne le parti mané ko ça vous concerne vous moi je suis pas de parti passif. moi j'ai pas de carte passif. parce que je veux mon indépendance Ousmane Sonko est mon candidat je ferai tout pour qu'il soit président de la République du Sénégal. Tout. Parce qu'il y va de l'intérêt du Sénégal et du mien, moi. Moi, je sais le projet, c'est quoi. Moi, j'ai un projet plus global. Mon projet, ce fait que dans le projet d'Ousmane Sonko, parce que c'est beaucoup le projet d'Ousmane Sonko n'est pas global. Moi, mon projet, il est global. Il est sans exception. De ma tooñ pas. de ma waxal kenn mais le plus important, ne intérêt Sénégal la ma di ko topp ba gis ki Je dama koy tudd yow loolu moo la metti stop stop ça à dire nga ànd ak El Malick Ndiaye chargé de communication au lieu que ngeen jéem améliorer seen communication ouvrir seen communication amener la communication de passif à un niveau professionnel ngeen nekk dans l'amateurisme et dans le forcing dans la dictature di wo nit ñi et eh, fais ça et ne fait pas ça moi je suis pas votre on n'a pas gardé les vaches ensemble que ce soit la dernière fois que top Sadio top nga di ma woo ay messenger di wax ak man ñu wax yu ñàkki teggin may wax ak yow pare gu ma nga bloqué ma que ce soit la dernière fois est-ce que c'est clair man Akhenaton may wax ak yow top Sadio top et je sais beaucoup de choses nag ci yow hein fi nga jaar ci na nga fa génnee ni nga demee Maroc ni nga ñëwee livre yi nga bind ni nga demee Guinée Bissau ki ñu la boole yëpp j'ai fait une enquête sur toi parce que man mosoo ma intéressé mais ni ni nga comporté ak man de façon condescendante de façon arrogante et insolente pour koo xamul di wax ak man mais na koy wax ak sa doom te xamoo ma may wax ak yow pare gu ma nga bloqué ma ci ay questions yi ma lay posé kese ay questions j'ai été respecté vis-à-vis de toi mais tu as été impoli et insolent si vous pensez que c'est comme ça que vous allez gouverner ce pays si vous pensez que c'est ça le patriotisme, si vous pensez que c'est ça le projet Ousmane Sonko prône, Ousmane Sonko doit faire très attention. Top Sadir Top est un homme insolent, est un homme pressé, est un homme qui, il est à la trempe de Madjam Il écrit peut-être, et c'est avec son écriture qu'il veut s'imposer pour occuper des responsabilités dans le combat que mène Ousmane Sonko. J'attire l'attention de Ousmane Sonko de faire très attention à cet homme, hyper ambitieux, hyper arrogant, hyper pressé. Stop, ça dire stop, je parle. Je ne sais d'ailleurs pas quelle fonction il joue dans le passé. Je le vois dans la communication. La dernière fois qu'Ousmane Sonko est bon, moi, présenté les gens. D'ailleurs, il a passé 15 minutes à présenter les gens. Ousmane Sonko était pressé, avait beaucoup de choses à dire. Il devait savoir qu'Ousmane Sonko n'a pas de temps. Mais de 15-20 minutes, Ousmane Sonko le lui a rappelé. Tu as perdu 15 minutes à présenter les gens. Ils ne sont pas des professionnels. Ils sont journalistes. Ils journalisme. Si c'est un un diplôme de journalisme il faut nous le dire il ñaareel bi yaa ngi demandé carte presse correct Nous démb Nous ñu pas ko nga dem sa pas di publier nous wuy pas ma rejeté sama kii ndax dafa am parti pris mais c'est correct c'est normal xam est-ce que journaliste ou est-ce que militant passif si tu es militant de tu n'as pas droit à une carte de presse encore que est-ce que tu es journaliste il faut prouver d'abord que tu es journaliste un journaliste n'a pas à dire que je suis militant de passif un journaliste n'a pas de parti politique Ousmane Sonko est mon candidat, je supporte le projet de passif, Mais dans la vérité, tu ne peux pas dire que tu es dans le parti, n'est que dans euh, Jotman Nadia, du corriger avec le ton, tu as un projet passif, yo, y a corrigé. Donc, yo, tu connais, tu connais le projet de passif. Donc, yo, stop, ça dire stop, tu défends le projet de Ousmane Sonko. Je suis parfaitement d'accord que tu le fasses. Mais tu ne peux pas le faire pendant que tu te dis journaliste, Tu dem fini de joxe carte presse Tu carte presse. La carte presse bi, correct dañu am code de déontologie, am règlement yo programme carte presse, il faut que nga un journaliste neutre, journaliste bo xamné do bok ci parti do bok ci ay groupe particulier te yow topp c'est-à-dire topp nee nga yow biir Pastef nga bokk yaa ma wax yaa ko bind ba pare nga bëgg ñu jox la carte presse non projet bi ñuy xé gis nga sama projet man dafa weesu Ousmane Sonko wess la yow ci dëgg la ñuy ànd ñun ñëpp chaque à sa place mais tricherie bi moo war a jeex fi fii fi fii fi fii capp fii seen naxayaat yii sa topp c'est-à-dire topp li ngay def man mom lay xeex wa keur Macky Sall amuloo pour di ko def auprès de Ousmane Sonko j'attire l'attention de Ousmane Sonko de faire très attention à top c'est-à-dire top sama wax nag fajar la fajar noté leen bu baax li ma leen wax yéen ñi may suivre fajar laay wax de boobu ba set jot je vous laisse à très bientôt yaa leen jëf merci beaucoup moom dootu ko dolli xam naa xawma ko may woote El Malick Ndiaye nag xam naa moo ko yónnee parce que El Malick moom il n'aime pas dans son cœur parce que je lui dis mes vérités léegi ay booyam lay jël dugal leen ci biir communication bi ay ay ay Ousseynou lii ay Tab Sadiq boo yooyu la may sànni mais ñoom du ma seen morom El Malick yow sax du ma sa morom El Malick Ndiaye parce qu'à chaque fois, je dis, la communication de passif n'est pas professionnelle. Au début, ça se comprenait. Mais aujourd'hui, passif est à un niveau tel qu'il faut professionnaliser la communication de Ousmane Togo et de Pasteur. El Malik n'a pas fait de la communication, il ne s'y connaît pas. Il fait de l'information, il fait de Ah, c'est pas de la com. Ce c'est pas de la com. Je suis désolé. Je suis pas là pour donner le nerf, Je ça. Moi, je suis pas complaisant. Hein sama liberté de ton boobu moo tax jëluma seen carte parti parce que su ma ko jëlee ñu ne wëyi discipline de parti il faut ranger quelque chose. ñu jël ay cuune ay con yoo xam ne duñu dara teg leen ci sa kaw ñu lay jox ay ordre te xamuñu dara moo tax j'ai refusé de prendre la carte je suis libre je suis un sympathisant je ne suis pas un militant mu leer ànduñu ah, man ànduma yéen ci ay caaxaan de dama leen a fal ba noppi nag topp yor sama caravage ci seen ginnaaw acca je suis un militant conscient je milite pour la conscientisation citoyenne la citoyenneté loolu moo ma ñor man li wax yëpp nit ñi yeewu la bu ngeen yaakaar ne damay ànd ak yéen pour ngeen fàllu nekk di donkaate di def leen neex may ànd ak yéen ci da ngeen di nax seen bopp ni may yërëmee ñoom Macky Sall ak yéen sax yéen du ma leen yërëm yéen parce que yéen maa yéen a ànd je vous lâcherai sur rien du tout faut que ngeen xam ñi ngeen ko seqal nous sommes maintenant cette génération de 2.0 duñ leen baal dara yéen ñi ànd ak Ousmane Sonko na leer top ça dire top je te connais pas faut plus que tu me contactes di ma jox ay directives naa ma nii nga war a def ak yow tu vois il wax ak la poser questions parce que nee nga man li def c'est pas le projet Moi, la c'est quoi le projet nga ne ah tu tu connais pas le projet donc on arrête le débat c'est pas à moi de te dire c'est quoi le projet tu te rends compte Moi, je pense que ce que je fais c'est le projet lui il me dit que c'est pas le projet je lui pose la question c'est quoi le projet il me dit si tu penses que euh, moi je suis là à te donner à te décrire le projet c'est que c'est pas le, débat n'a pas lieu d'être vous avez vu comment, comment ces gens-là ils, fonctionnent alors qu'ils ne sont pas encore aux affaires Vous vous rendez compte Ils ne sont pas encore à l'État dit toi là, qui n'est pas encore au palais. Tu as vu comment il se comporte avec moi alors qu'il n'est pas encore au palais Vous vous rendez compte Arrogance, suffisance. Ah, El Malik Ndiaye rit. xam nga nit ñoo ils n'ont rien à la tête mais arrogance Il y ci des ay live spéciaux yéen benn par benn biir Pastef je vous raterai pas si je vous le dis croyez-moi si vous pensez que je euh, suis yaakaar a ñun dañuy wala projet bi c'est comme présent projet bi dafa am ay intouchable dafa am ñoo xam ne dañu nekk ci biir parti bi parce que am nañ légitimité historique parce que am nañu ay ndomba tànk ci parti bi il se croit tout permis arrogant fermé duñ déglu nit ñi lu neex la ñuy def vous vous trompez vous vous trompez da ngeen nekk ci politique boo xam ne une nouvelle façon de faire la politique la politique deux projets la politique boo xam ne fi ma toog laay toog man di wax li ma xalaat Sénégal àdduna bi di ma dégg beaucoup la politique ancien Abdou Diouf ki PS yooyu nga xam ne dañuy nekk ci parti bi def leen neex le parti Pastef est un parti en vert

ngeen ñëw tey taxaw parce que y a un parti qui s'appelle Pastef les patriotes Ousmane Sonko jiitu ko Sénégal yëpp jublu ko topp ci ginnaawam di dund ci barkeem am célébrité nit ñi xam leen ci turu Ousmane Sonko ndax moom rek moo fi liggéey moom rek la ñu xam xamuñu keneen ngeen di ci falu di ci folleeku am ci ay tur am ci sac am ci lépp ngeen gis seen bopp yëg seen bopp teg seen bopp foo xam ne Ousmane Sonko sax tegu fu boppam au nom de quoi ngeen faak ngeen Et je ne pense pas que vous soyez plus utile que moi pour Ousmane Sonko. Ce n'est pas à vous. Top, ça dire top, le socle de El Malingay, là, pseudo, je sais pas quoi, là, ce pas à vous de me dire ce que je dois faire. Ce sera la dernière fois que vous m'interpellez. Est-ce que c'est clair C'est pour défendre votre talibé parce que vous êtes de Tiaoun. Quand je me suis attaqué donc, au deal qu'ils ont fait sur la mosquée de Tiaoun, là, un projet de 23 milliards de la Banque islamique Sénégal au nom d'un financement, je sais pas quoi, là, quand je me suis attaqué à ça parce que c'est une mafia, oui, c'est une mafia que vous avez faite et je vais le démontrer. Mohamed Mortasi, c'est Bindou. Vous avez créé une société qui s'appelle Adiana SA. La société, qui sont les actionnaires Qui sont les actionnaires de la société Adiana SA 23 milliards au niveau de la Banque islamique sénégalaise pour la construction de la mosquée, euh, l'énergie solaire et puis les parasols mécaniques. Qui sont derrière Qui sont les actionnaires Une société anonyme doit avoir des actionnaires. Quelle est l'architecture du capital On parle de la mosquée de Tiaron c'est une propriété qui appartient à tout le monde, à la communauté. Mais on a de quoi On crée une société qui est actionnaire de la société. Les actionnaires de la société, leurs enfants sont des héritiers de la société. Alors, est-ce que ce sont des si, les Amadou Matar et tout ça Il faut que vous l'ayez. je Bob la Dougou de traité. Top, ça dit top. Dougou, oui, il ne faut pas que le combat de qui mène les marabouts. Moi, je m'en fous des marabouts. Je m'en fous de tout ce que vous dites je m'en fous de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général, ça dit top. Parce que El Malinga est un talibé de, de, de ou est un talibé de Tuawan, c'est une a a Bien fondamentalement, je suis dans ça. Vous êtes libre d'être talibé. Mais moi, j'ai le droit d'avoir des idées sur tout ce qui se dit, d'avoir des points de vue, de l'exprimer. Que ça vous plaise ou pas, ce n'est pas mon problème. Je ne l'ai pas dit, on a des on vous voulez dire que tout ce que je ferai, d'abord, on va le sous l'œil de passif Moi, j'ai pas de vie, moi. J'ai pas des avis sur telle ou autre chose, là. Mais j'ai des, des avis, ça n'a rien à voir avec passif. Quand je parle de passif, c'est passif. Quand je parle de tout bas, c'est tout bas. Quand je parle de tout haut, c'est tout haut. Moi, je suis libre. Je suis sénégalais. Mais l'on va rien beaucoup rôle sous l'angle de passif Ousmane Sonko projet. Mais vous êtes des malades ou quoi? Faut arrêter.